dina baax ñu xool ci ginnaaw tuuti xool ñi nga xamante ni ñooy suñu royukaay dëgg ñoom fu ñu tolloon ci bunt bi muy buntu xam-xam bëgg ko ak di ko sàkku ak gëdd buñ ko joxoon ak lim leen jaraloon ngir ñu mën ci jëriñ ñun itam soobu seen yoon woowu ba am na nga xamante ni amoon nañ ko muy ngir mën borom bi subhanahu wa loolu yomb yàlla yàlla ñu ko defal kon ñu jox suñu sage Mor Kébé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 bu ñuy waxtaan ci xayaatul al imam al buxaari rahimahullah li nga xam ne mooy nekk jubluwaayu genre waxtaan yu mel noonu mooy jéem a ut royuwaay xoolaat royuwaay maanaam euh, li ñu mën a jànge ci dund ku mel ne al imam lu bari la waaye dafa am solo léeg-léeg nga xoolaat dund ñenn ci mag ñooñu nga xam ni ñoom ñoo jàlloon xoolaat seen nekkin seen njànginu xam-xam ak li nga xamante ni liggéey nañ ko ci lislaam loolu lu bari lay def ndax dina la xëy na jox ay ay ay exemple ci wàllu yar wàllu def sacrifice ci diine lislaam ak yu bari mais tamit dina gën a ñaaxaat nit ki ndax li tax mu koy ñaax mooy boo xoolee ne kooku nit la comme yow ni nga nekkee nit bu fekkente ni lislaam jaraloon na ko mu def lii góorgóorlu woon na defoon na lii defoon na lii meloon na lii loolu yow dina am lu mu defaat ci yow ci gën la sawar la wat nga gën a làbbali gën a góor góorgóorlu ngir même bu fekkente ni mënuloo àgg fa mu àggoon tamit nga jëm ko jege nga jëm ko jege loolu moo tax léeg-léeg di xoolaat ñoo ñu jàlloon di ko jàngat am solo moo tax même xataa yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla daf ko doon nettali dund ñi jiitu woon naan ko wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabbitu bihi fuadak daf ko daan nettali dund ñi jàlloon du yonent yi rek yem ca waaye yonent yi ak ñi nekkaloon ci ñu gëm yàlla ci liñ daan jànkoonteel ci ay jafe-jafe ci seen diine moo tax bi diine ji taree bi mbir mi taree loolu ci ñoom ci makka jafe-jafe yi tar ñu leen di mbugal yàlla wàcc ci ñoom xissatu asxaabul kahf ñu nekkoon ay ndaw nekk ci dëkk boo xam dañu fa tumuranke li leen wër lépp nekk bokkaale ñu leen di mbugal di leen sonal yàlla nettali ko ay ndaw yu yàlla defal njub loolu jar lañ ñu def ay sacrifice yu rëy rëy rëy rëy rëy léegi loolu li ci nit ki di jële mooy ñoom bu leen seen diine jaralee loolu man sama diine war na ma jaral lu ko ëpp kon ñoom lu ñu jànkoon jànkonteel ci ay jafe-jafe li muy métti métti yëpp mu jaral la seen diine jaral leen ñu dégg ko def ay sacrifice génn bàyyi seen njaboot bàyyi seen lépp dem làqatu ji ngir rëccal seen diine kon man tamit su ma nekkee sama biir xeet ñu may mbugal di ma natt ngir ma delloo dellu ginnaaw ci sama waruma ko def dama war a muñ ñun tamit am nañu ñu fi jiitu woon moo xam ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ay àndandoom saxaaba yi ak ñu yaroo ci ñoom ak ñu ci topp ajiyaal yooyu yëpp génération yooyu yëpp jàll chaque fois boo ko jàngatee xool ko ci histoire histoire l'islam da nga ciy gis nit ñoo xamante ni seen dund jàng la seen dund jàng la lu ñuy war di xool la di ko tegaat ñu kanam di ko jàng ndax liñ ci mën a jëlee lu bari la loolu nag la chaque ni tànn ci kenn ku mel ne al imaamul buxaari ak dayoo bi bi mu am ci l'islam ak jaaruwaayam lu baax la bu dul dara ñu xamaat ko gën a xam mooy kan xam li mu liggéey ci lislaam ba tax loolu ñu gën ko joxaat valeur am joxaat ko dayoo bi mu am di ko ñaanal mu gën a amaat cër ci suñu xol ci suñu xol ñu xam ne kenn la ci soldaari yàlla yi yi nga xam ne ci ñoom la yàlla sàmmee diinam ji ndax li nga xam ne def na ko ci lislaam bu ko defee nit ñi gën koo xam loolu rek bu dul woon loolu rek doyoon na waxatuma la nit ñun suñu bopp liñ ci mën a ci lu mel ne al imam Abdullah ibn Mubarak li mu doon wax naan siyaru saalixiina jundun min junudillahi yuthabitu llahu biha quluba man shaa min ibadihi doon na wax naan di jàngat ak di xool dund nit ñu baax ñi mu ne jëmmi di jàngat ak di xool dund ñu baax ñi benn soldaar la ci soldaari yàlla yi yàlla da ciy dëgërale xolu ku ko soob ci ay jaamam waaw yàlla dafay dëgëral xolu ku ko soob ci ay jaamam ci di jàngat dund gaa yu baax yi nga xam ne ñoo jàlloon kon jàngat seen dund dafay saxal xolu nit dafay dëgëral xolu nit daf koy gën a euh, sawarloo daf koy gën a ñaax ci diineem alimaamul Buxaari dundam dundam xëy na mënuñ ci mënuñu wax lépp ci dundam mais dañuy xool yenn rek ci ay tomb ci dundam ñu jàngat ko ngir jële ci ay njàngat jële ci ay mbir am ci ay taxawaay ak ay settantal yoo xam ne xëy na dinañ ko mën a delloowaat suñu bopp xool lan lañ ci mën a jariñ suñu wàllu diine ala kulli xaal al imaamul Buxaari noonu la siiwee Buxaari dàkkantal la ci dëkk bi nga xamante ni fa la dëkkoon di Buxaara mi ngi tudd Muhammad ibn Ismail al Buxaari Muhammad ibn Ismail al Buxaari noonu la tudd euh, Ismail mooy baayam Ismail moom nga xamante ni bi moom mooy baayam daa daan na yëngatu ci xam-xam loolu tamit euh, da ngay gis ne al imaamul Buxaari dafa juddoo ci kër goo xam ne këru borom xam-xam la. jox fi lañ koy wax alimam wax dañuy wax jox fi la mais nekkul ne moom ab arabi la du ab naar du arab waaye dañ leen askanale ci benn giir ci giiru arab yi li tax li sabab bi mooy ne ki tuubal maamam bi tudd mugira maamam bu tudd mugira ki ko tuubal moom ab naar la ab arab la nekkoon gouverneur ci buxaara ba mu fa nekkee gouverneur maamu buxaari maamu buxaari bi nga xamante ne bi mooy mugira moom ab animiste la woon doonul woon jullit loolu ci lu yàgg la laata buxaari du judd comme ci loxoom la tuubee dañ daan def boo tuubee ci loxoy kenn mën nañ la askanale jiiru kooku maanaa jiir ba kooku bokk léegi ñu lay dàkkantelee jiiru kooku donte yow doo ab arab mais bu ñu lay dàkkantelee jiir bi ku ko dégg te giir boobu nekk jiiru arab dafay yaakaar ne ab arab la mais fekk ne du arab moo tax ñuy wax al buxaari di ko wax al joxfi mais nekkul ne ci xabila boobu ci giir boobu la bokk waaye maamam lañ fa dàkkantalee woon maamam lañ fa askanale woon mi ngi judd ci bisu ajjuma ñeenteeli fan ci weeru shawwal ci atu cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quatorze ci la judd maanaam téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci la judd bisu ajjuma ñu ngi wax tamit ne alimaamu zahabi solo wàcce na ko rotal na ko ci ab càllale ci siyaru alaami nubala ñu bari tamit tuxal nañ ko ci ne alimaamul buxaari bi mu nekkee xale dafa silmaxa woon daawul gis dafa silmaxa la woon daawul gis waaye yaayam dafa daan ñaan lu bari ndax buxaari yi dund la dundul lu yàgg ak baayam baayam dafa teel a am na sax kuy wax ne fekk na baayam bi muy faatu mu ne bàyyi naa alal ju bari maa ngi wat yàlla ne benn dërëm bu xaraam nekkul ci sama alal ji nga xam ne bàyyi naa bàyyi Buxaari moo doon waxal Ismaïl après Buxaari ci la teg ci loolu ne nit ki jamono buy faatu ci lay gën a dëggu jamono bi nit ki di gën a dëggoo mooy jamono buy waaj a faatu kon loolu li muy tekki mooy bu waxee loolu li muy tekki mooy nit ku ragaloon yàlla la ku daan wattu alalam la ni muy fàggoo alal alal jooju mu bàyyi bàyyiloon Buxaari ak ndeyam ak magu Buxaari daanaka lu ci bari Buxaari ci njàngu xam-xam ak sàkku la ko la ko dépensé alal jooju kon mën nañu wax ne ci këru xam-xam la juddoo ndax ndayam tamit xëy na xamuñ ci moom lu bari mais jàppale na buxaari ci xam-xam ndax moo ko teel a dugal ci daara yi mu dem ci borom xam-xam yi jàngi teel a ànd ak moom tamit tukki dem aji ji bi mu aji jee ànd ak magam ak ndayam ñoom ñaar dañoo del si bàyyi fa buxaari fekk mu nekk xale bu ndaw ñu bàyyi ko fa mu nekk ci borom xam-xamu xadis yi ci booru kaaba gi di jàng xam-xam te boobu xale la kon ku teel a soobu ci sàkku xam-xam la nee nañ bi mu nekkee xale itam daawul gis waaye ndeyam daf daan ñaan lu bari di jooy ngir yàlla delloo ko ay bëtam ba nee nañ benn bis mu tëdd gis Ibrahima alayhi salaam mu koy wax na ko yow mi day yàlla delloo na sa doom ay bëtam ndax lu bari li ngay ñaan ak di jooy sa ñaan yu bari yi ak sa jooy yu bari yi moo tax yàlla delloo na sa doom ay bëtam ci la Buxaari tàmbaliwaat di gis loolu lu ñuy nettali la ci dund Buxaari ci ñu bari ci ñu ko ñu nettali dundam nettali nañ ko mom la wax sànq ne imam dahabi rotal nako ci siira am alam nubala ci càllale yàlla may ko timi tel ko may mokal mokal hadith mom ci bopum da fay wax ne bima nekké xale yàlla dafa ma téla defal mokal hadith mu am mokal bo xamni dafa ragne ko won ak nim doon àndal ci ay moromam di sàkku ji hadith ba kim daan àndal di muhammad ibn abi hatim daf ko laaj nako naka nga tàmbale sa jangum xam xam-xam mu ne yàlla dafa ma téla defal mokal hadith ma téla a tàmbali dem ci daara ji di jàng nee na boobu mi ngi am fukki at wala sax néew na fukki at mais yamul ci alquran ba mu doon jàng ci daara ji mais daf daan jàngaale tamit xadis nee na bi nga xamante ni bi jóge na ci daara ji bi mu paree njàngam ci daara ji mu tàmbali dem ci benn borom mu xam buy jàngale xadis bu nekkoon foofa tuddoon ak daaxili nee na mu fay dem dafa fa jàng xam-xamu xadis nee na benn bis ñu toog di jàng xam-xamu xadis góor gi nga xam ne moo leen di jàngal daal di soloo benn xadis tàmbali di wax jàllale gi ne sufyan sufyan yarhamukallah sufyan jële na ci abu zubair koko jële ci ibrahim al imam al bukhari nako abu zubair solo wul ci jële ci ibrahim bukhari nako abu zubair solo wul jële ci ibrahim neena gaay dal yi di koy jajj nako ko mu way xale bi lumuy wax ni gor gi kilifa tok di di di di di di imlaay xadis ne sufyan jële ci abu zubair mu jële ci Ibrahim mu ne ko Abu Zubair jëlewul ci Ibrahim nee na gaa yi jàjj ko góor gi jàjj ko alimaamul Buxaari na ko duggal nga xool bu fekkente ni say téere mi ngi ci biir sa téere yi ngay sukkandiku ci xam-xamu xadis duggal nga gëstu nga xoolaat xadis bi nee na góor gi dugg génnaat yore téere bi ak benn bi naan ko xale bi loo waxati woon alimaamul Buxaari na ko du Abu Zubair an Ibrahim mais Zubair ibn Adi an Ibrahim la góor gi yëngal boppam ne ko wax nga dëgg ñu laaj ko ne ko jamono boobu ñaata at nga am mu ne boobu fukki at ak benn la am rahimahullah boobu fukki at ak benn la alimaamul buxaari am bi nga xamante ne am na fukki at ak juróom benn muy 16 ans fekk na ko mokkal téere yi abdullah ibn mubarak téere yi waqi ibn jarrah muy borom xam-xam yu mag yoo xamante ne xëy na fekku leen waaye ci ñi gënoon siiw ci borom xam-xam yi ñu daan jàng seen i xadis jàng seen i téere bokk nañ ci Euh, ba léegi Muhammad ibn Abi Hatim di ki daan ànd ak moom di ko jàppal ay téeréem wax nañu dégg na ci ñaari boroomi xam-xam ñuy wax ne alimaamul Buxaari daf daan ànd ak ñoom bi ñu nekkee Basra ci benn dëkk ci dëkku Iraak yi di jàng foofu xam-xam nee nañ dañ daan ànd ak Buxaari di jàng ji xam-xam ay fan ñuy ànd di dem ci borom xam-xam yi buñ ñëwee yore seen i dig ak seen i téere di bind xadis yu leen yu ñu leen di wax ci jotaay bi ak càllale yi ak ni mu ni muy bëree xadis bu jeex ñu teg ci beneen ak càllale yi ñoom ñuy bind moom mu toog rek ay fan ñuy ànd ak moom di ko gis bu ñëwee toog bu jotaay bi jeexee mu jóg dem nee na ñu koy topp naan ko waa yow duñ la gis ngay bind yow nooy def du leen wax dara biñ ko ci sonalee sonal ko ci ci la leen wax ne leen fan yëpp yéen a may topp di ma sonal di ma laaj léegi nag li ngeen may laaj bëri na dama bëggoon xam ngeen wax ma ñaata xadis ngeen jot a bind fekk boobu jot nañ dem foofu lu mat ay fukki fan ak juróom-benn yoo xam ne ñu ngi dem di jàng ji xam-xam fukki fan ak juróom-benn biñ ko wanee xadis yi nga xamante ne bind nañ ko alimaamul Buxaari yokkal leen ci quinze mille xadis quinze mille xadis lépp daf koo tari ci dënnam la ko jëlee la ko la ko tare lépp daf koo mokkal ci jotaay yi mu daan ñëw di toog di déglu daf daan mokkal li ñuy wax daf koy mokkal lu ko bind fenn nee na mujj gi ñu naan ko defal ndànk bamtuwaatal xadis boobu nga waxoon léegi di corriger li ñu jotoon bind ci seeni téere ñu koy corriger ci mokkalam ci xifdam ñu koy ñu koy mokk ñu koy corriger ci xifdam nee na bi mu bi mu leen tarilee xadis yi ba mu jeex ba yokkal leen ci ay xadis yu leen rëccoon nee na bi mbir mi demee noonu bon boo gisee nag xadis yu bëree noonu xadis yu bëri yooyu loolu tamit euh, dafa jar comprendre mooy na ñoom bu njëkkoon ci ni ñu doon ni ñu doon wàññee xadis doo ci déggee wàññi xadis yooyu mooy xadis bu nekk càllaleem ak matn bi bu fekkee xam nañ xam xadis tuuti danañ xam ne ñoom li ñu doon wàññi mooy càllaleem benn xadis dañ koy wàññil ay yoon yu bari maanaam benn xadis lu mel na nga ni innamal a'mal binniyat xëy na xadis boobu euh, nekkul lu bari càllale mais comme rek boo ko soloo woon muy benn xadis innamal a'mal binniyat nga soloo ko jëlee ko ci benn sëriñ mu jële ko ci ci càllale ba mu àgg nga soloo ko jële ko ci keneen ba mu àggaat soloo ko jëlee ko ci keneen benn yoon bu nekk dañ koy tuddee xadis donte wax ji benn la mais comme yoon yi bokkul ñoom loolu lañ doon tuddee ay xadis moo tax ngay dégg mu bëri noonu mais loolu yëpp xadis lañ koy tuddee ndax xadis bi xëy na wax ji benn la mais yoon yu ko solo bokkuñu bu nekk dañ koy considérer comme xadis à part nee na bi nga xamante ni jeex na ci la leen wax ne leen ndax da ngeen yaakaar ne damay bamtu di jaabante nii rek ci nen di sànq samay waxtu di sànq samay fan ci lu dul nen ndax loolu ngeen foog nee na bi mu bi mu leen waxee loolu ci lañ xam ne kii kenn du ko raw ci xam-xamu xadis incha allah kii kenn du ko raw ci xam-xamu xadis ba léegi alimam ibnu adi dafay wax ne jële ci yenn ci ay sëriñam ñu nettali ne alimamul buxaari doon na wax ne mokkal naa téeméeri junni xadis yoo xam ne wér la mooy comme wàññi bi ma leen waxoon léegi ci loolu lañ ci namm téeméeri junni xadis yoo xam ne wér la ak ñaar téeméeri junni xadis yoo xam ne wérul maa ngi ko mokkal ci sama dënn moo tax borom xam-xam yi daan wax naan mosuñu gis ku mel ne alimaamul buxaari kenn ci borom xam-xam yi doon na wax ne mosuma gis ku mel ne alimaamul buxaari ndax yàlla mayoon na ko ci mokkal loo xam ne bu mu sant ji téeréew benn borom xam-xam nee na bu ci xoolee nii sëgg ci xool ci bu ko tëjee xamal ne xadis yi ci nekk yépp cati xadis yi li ñu tuddee al atraf mokkal na ko benn yoon la koy xool mokkal ko boo ko joxee ab téere bu xoolee ci càllale cati xadis yi cat yi li ñu tuddee al atraf parce que usulu hadith yi am na ko ba pare soxlawul muy mokkal lépp mais cati hadith yi lay xool lépp mu mokkalandoo ko benn yoon loolu yàlla mayoon na ko ko ci xibs mais loolu tamit ba léegi dinañ dellusiwaat ci ne loolu yëpp am na ay asbab yoo xam ne moo leen taxoon ñu am mokkal bu bu mel noonu mooy ne ay nit lañ ñoo xam amuñu woon beneen yitte ci bu dul loolu dina ñëw ci kanam ci ñu nettali ci dundam ak li ñu wax ci moom alimaamul Buxaari amul woon beneen yitte ci àdduna bu dul xam-xam moo nekkoon yitteem seen jamono yàquwul woon comme suñu jamono ci ñuy dund nii léegi seen i société amoon na tuuti yiw ak sell bu ci nekk nit ñi fegu woon nañ sàmmoon nañ seen bopp yàqute gi tasul woon comme suñu jamono ji nga xam ni nit ki daanaka li muy gën a soxla tey mooy sàmm boppam ba du tax sax du day tax sax du tala defar boppam ndax tazkiyatu nafs mu yar bakkan ñaari étape la benn bi muy at taxliya bi ci des di at taxliya mooy ni ngay sàmmee bakkan bi ba ñaawteef fi ci nekk nga dindi ko aar ko beneen bi ci des mooy nga di ko nag dundal di ko dundal ci ay jëf yu baax ci xam-xam ak yu mel noonu mais jamono ju ñu toll ñaareelu étape boobu sax pour nga àgg ci day jafe ndax bu njëkk bi rek ci ngay ne di sàmm rek ak di protéger daanaka moom ngay gën a tal sax que yitte woon ak léegi li mu soxla ci nga jox ko ñoom seen jamono daanaka bu njëkk boobu sonal lu leen woon loolu moo tax nga gis xale bi bu juddoo ci këram ñu yar ko ci diine yar ko ci xam-xam balaa muy am ñaar fukki at fekk nekk na nit koo xam ne nit ku yiw la nit ku sell la set la ci bakkanam maanaam bakkanam dafay tijjeeku jëm ci diine ak ci alxuraan ba nga xam ni da ciy mel noo xam ni bu léeg-léeg boo ko jàngee daanaka doo ko mën a dëggal sax surtout boo ko comparé ak ñun li ñu dund tey yàlla defoon ne ñu sàmm kon seen dund la sàmm seen bakkan ba tax daal ala kulli xaal lu bari ci seen ci li yàlla di may doomu aadama ci kattan nit ki mën koo jëfandikoo nit ki mën koo jariñoo loolu nekkoon na ci ñoom moo illa xifd yu mel noonu ba léegi mi ngi ci nitu tey mais dafa am ay mbir yu koy yàq ak ay mbir yu koy affaiblir mbir yu bëri la koy affaiblir suñu développement bi ñu bi ñuy dund nii ci wàllu technologie wàllu lu ne wàllu lu ne wàllu lu ne ñun daf ñuy affaiblir parce que doomu aadama yi léegi dootuñ sukkandiku ci lenn ci seen bopp dangay yore sa téléphone portable loo soxla nga enregistré ko euh, da nga yore sa ordinateur li nga soxla lépp nga programmé ko ci da nga yore lii da nga yore lii léegi li sa xel daan def lépp nga koy sukkandiku ci sa bopp dootoo ko def bu sax dañ daan bind borom xam njëkkoon dañ daan sax ragal a bind ndax dañ jàppoon ne boo bindee da nga ci sukkandiku ba tax ni nga waroon mokkale doo doo ko mokkale moo tax ñenn si ñoom doon moytundiku di bind atbaaru taabiina yi dañ daan moytundiku di bind dañ nañ tere seen ndaw ñuy bind ndax dañuy xam ne boo commencé bind dangay tàgganee sa mokkal te yàlla jox na doomu aadama xel ak benn jumtuwaay boo xam bu ko jariñoo kéemtaan la mais ñun yabatuñ léegi sax ci bind mi mais léegi li ñuy jëfandikoo ci wàllu technologie ay outils ay moyens ñun daf ñuy ñun suñu bopp daf ñuy delloo ginnaaw bi ñu gën a néewal doole loolu moo tax kon boo ñu nattalee ak ñoom da ngay xaw a jaaxle tuuti mais wa illaa loolu mi ngi fi ba léegi alimaamul Buxaari rahimahullah euh, bi nga xamante ni jàng na ci dëkkam comme loolu mooy sunnatu borom fi mi bu njëkkoon mooy ne bu ñu mësaan jàng seen dëkk sàkku xam-xam ci seen i borom xam yi dëkk li cëpp dañ daan tukki dañ daan génn dem ci dëkk yi nga xam ne mooy dëkki xam yu mag yi ñu dem foofu takkoo ak borom xam-xam ya fa nekk jàngee ci ñoom génn la ndax wax nañ sànq ne moom ci nee na bi muy am fukki at ak juróom benn ànd na ak ndeyam ak frère am ñu génn dem Makka aji biñ deñee ba foo demee ba foofu dafa sàkku ci ñoom ñu may ko mu toog fa ngir sàkku xam-xam ndax dafay dem foofu gis borom xam-xam ma du du mën a dellu du mën a dellu ndax dafay gis loo xam ne ala kulli xaal du ko fa mën a bàyyi di dellu mu ñaan leen ñu bàyyi ko ñoom ñu dellu si waat moom mu toog foofu continuer boo jàngee ci Makka dem Madina ñu koy tuddee ak Xijaaz jóge foofu dem Sham jóge foofu dem Iraq jóge foofu dem Misr dëkk yooyu yëpp nga xam ne dëkk borom xam-xam yi la fu ne alimaamul Buxaari dugg na fa mës na dem benn dëkk ci dëkku xam-xam yi ñu laaj ko ne ko nett lañu waxal ñu ñi nga xamante ni jëlee nga ci ñoom xam-xam yépp mu tuddal leen mu nettali leen junni xadis yu teg junni xadis yoo xam ne teg na benn xadis bu ci nekk ci benn sëriñ la ko jëlee ci sëriñu borom xam-xam xadis bi benn xadis bu ci nekk da koy nettali ba mu àgg mu ngi ko jëlee ci benn sëriñ boo xam ne dégg na ci moom maanaam sëriñ yi mu déggee ci ñoom ñëpp xam-xam ku nekk mu nettali la benn xadis bi ñu wañee xadis yi mat na junni ak lu topp kon li muy tekki mooy junni ak lu topp yooyu yëpp déggee na ci ñoom xam-xam te itam bu musaan tukki di dem ci borom xam-xam yi mu daan dem yàlla mayoon na ko mu teel a géeju ba nga xam ne ñu ci bëri moom moo leen ëpp xam-xam ci xadis bu ñëwee di jël ci yow tamit du n'importe comment lay jëlee ci yow al imaamul Buxaari doon na wax ne ni ma daan jàngee xadis ak ni ma ko doon jëlee ci borom xam-xam yi nuroowul ak ni ko ñeneen ñi doon defee ndax man su ma ñëwee ci yow dama lay laaj sa tur laaj la sa dàkkantal laaj la sa askan ba xam la xam yaay kan xam itam xadis noo ko sàkkoo bu fekkee borom xam-xam nga ma gis ne yow borom xam-xam nga bu géeju ci xam-xam damay dugg ak yow ci loola wax ci ak yow bu ma gisee ni sa xam-xam sorewu ci loolu ma ne la indil ma say téere bu ko defee nga dugg sa téere yi nga jàngee xam-xam bind ci sa xadis ma xool ko sam bopp moo tax benn bis defal na ko benn góor bi mu ñëwee ne ko jox ma say téere kooku jox ko téere yi bi mu xoolee téere yi dafa daal di tànn yenn xadis am yu mu bàyyi góor gi na ko déet yi nga tànn moom dama bëggoon nga nga marqueel ma ko ma xam ko yi nga tànn marqueel ma ko bi mu ko ko marqueelee góor gi tàmbali dootul nettalee ci benn xadis bu dul yi ko Buxaari wan ci xadis yoo xam ne moom moo ko moom moo ko bindal boppam ci ay téeréem waaye wóolu bu mu wóolu Buxaari tax na xadis yi nga xam ne moom la Buxaari gërëm ci téeréem ba tànn ko xadis yooyu rek la doon nettali ci des mu bàyyi ko loolu day wane nit la woon koo xam ne tey yoon la ci ni mu doon sàkkoo xam-xamu xadis ak ni mu ko doon jëlee ko ci yàlla may lu lu doy doon na wax ne daan na dem ci benn dëkk di fa sàkku ji xam-xamu xadis di fa sàkku xam-xam bu mu demee ci jataay bi nee na boo fekk xale bu ndaw la nee na bu ñëwee ci jataay bi di sàkku si xam-xam neen dafay sax rusa nuyoo day ragal ba bu ñëwee day mel ne ku làqatu rek dem toog ci ginnaaw nee na sëriñ bi daan jàngale comme yarkat la woon daka daan wax na ko saawaay tey tey loo bind mu ne ko ah bind naa ñaar de nee na bu ko defee gars yi di reetaan mu ne bind naa ñaar maanaam góorgóorlu na ba bind ñaari xadis gars yi di reet di ko reetaan ndax ñaari xadisam yooyu nga xam ne moom la bind ci jotaay bi sëriñ bi doon jàngale ci jotaay bi da leen daan wax naan bu leen ko reetaan su ngeen moytuwul dina leen mës a reetaan bu leen ko reetaan su ngeen moytuwul dina leen mës a reetaan yi loolu la leen daan wax rahimahullah euh, wàllu taalif tamit euh, kon ku ku ku teel tukki la teel a yëngatu ci wàllu sàkku la rahimahullah wàllu taalif tamit teel na tàmbali taalif ndax wax na bi muy taalif fukki at juróom-ñett rek la mu tàmbali di dajale li nga xamante ni bi moo moo aju ci wàllu saxaaba yi ak seen dund muy qadaaya saxaaba mu tàmbali di ci di ci di ci bind neen da ko dajale nee na tamit ak taarix muy benn téere boo xam da koo taalif ci dundukaay yi nga xamante ni ñooy solo xadis mu bind ci ñaar taarixul kabir ak taarixul saxir muy téere yu yéeme yoo xam ne moo njëkk a taalif téere bu mel noonu ci lislaam alimaamul buxaari téere la boo xam téere la yoo xam ne da cee boole nettali góor ñi nga xam ne ñooy solo xadis wax itam seen i xadis lu ci am ci ay problème mu junj ko mooy da ciy boole al jarx wa taadil ak al ilal ñaar yëpp nekk ñaari fànn ci xam-xami xadis yu màgg a màgg mu boole ko ci benn téere def leen par ordre alphabétique ci façon bu doy waar boo xam ni sëriñam bu mag ci sëriñam yi ko jàngaloon di ishaq ibn rahoya alhanbali bi mu gisee téere bi buxaari taalif ko dafa yéemu ci téere dafa yéemu ci buxaari naka la mën a taalifee téere bu mel nii dafa kontaan ba dafa jël téere bi dem ci gouverneur bu buxaara bi mu ñëwee def na ko ndax du ma la wan jabar du ma la wan jabar ala urika sixra la ko wax ndax téere bi ni mu kontaanee ci téere bi nga xam ne buxaari taalif na ko téere boobu nee na mi ngi ko taalifee ci ci jaal jumaa yonante bi alayhi salatu wasalam ci guddi yi nga xamante ni dafa nekkoon dafa amoon clair de lune nee na ci la ko doon taalif téere boobu mu taalif tamit al jamiu sahih bi nga xamante ni moom moo siiw ci sahihul buxaari taalif ko ci ay at yu bari nee nañ taalif na ko ci lu mat fukki at ak juróom benn yoo xam ne limaam buxaari nekk na ko ci téere boobu di ko taalif ñun kenn ci ñun buy taalif téere day bëgg ci ñaari fan ñetti fan mu sotti al imaam buxaari taalif na ko ci jamono ju yàgg nettali nañ jële ci moom mu ne amul benn hadith bu mu bind ci téere boobu lu dul ne dafay sangu ba set julli ñaari rakka soog koo soog koo dugal ci téere bi nee na titre yi nga xam ne mooy titre bunt yi bunti téere bi titre yi anawinul abwaab taraajim yi nee na benn bi mu koy bind ci diggante xabru yonente bi alayhi salatu wasalam ak minbaram foofu la ko doon bindee ci jumaa yonente bi alayhi salatu wasalam fala sax toog fa di bind titre yooyu rahimahullah téere la boo xam bi mu koy bind def na ci coono bu rëy rëy rëy rëy téere bi nee na bi mu koy bind da nee na benn bés dafa mës a toog ci kër ci jataayu góor googu di Isxaaq ibn Rahoya nee na am fa waxtaan bu fa bu fa jóg ba ñenn ci ñi fa toogoon ne bu ngeen góor góorgóorlu woon ci xool xadis yi wér ci sunna yonente bi alayhi salatu salaam kenn ci yéen bu ko defoon bind ko ci benn téere doon na am solo lool nee na bi ma déggee wax jooju am nit ku ko wax ci jotaay ba nee na wax ji tàbbi ci sama xol nee na boobu nag ci laa commencé di xalaat ne dinaa dinaa bind benn téere boo xam ne du ma ci dugal lu dul xadis boo xam ne xadis bu wér la waaye bi mu ko taalifee itam nee na xadis bu mu ci dugal xadis bu wér la waaye du xadis yu wér yépp la ci dugal ndax dafay bañ téere bi gudd ba jéggi dayoo kon nekkul ne xadis yu wér yépp ñu ngi ci sahih bukhari mais dafa xool rek ci wér yi ci gën a wér mu taalif ko dugal ko ca mais am na yu mu bàyyi yoo xam ne dugalu ko ci téere bi te sax ay xadis yu wér la ndax bu ko toppee woon noonu xadis téere bi dafay dafay gudd lool dafay jéggi dayoo taalif na tamit al adab mooy al adabul mufrad naka noonu tamit benn téere bu ndaw bu mu def ci al qiraa خلف الامام جزء القراءه خلف الامام مو جانغ جيت سي غيناو امام بولا جيتا اك تيميت دفنا سي خلف افعال العباد تيري بوب ان شاء الله تعالى دينا نيو سي ني سي كانام امنا توما بو ري بو توما لون بخاري سي دو واخ جو خن دني واخ ني داكاي واخ خاينا داو توما لا سي جوبلو وون اك داك توما مو تاخون مو تاليف واني ني جيف جامي جامي سين جيف يالا داكو ساك بنديف لا جيفو جامي لي ني ديف لو يالا ساك لا والله خلقكم وما تعملون ba léegi Muhammad ibn Abi Hatim di ndongaam loolu daan ànd ak moom di ko téyel ay téeréem ak di ko ko di ko ko taxawul wax na ne mës nañ laaj al imaamul Buxaari ne ko ndax li nekk ci sa téere bi yëpp danga nga koo mokkal mu ne amul lenn lu nekk ci téere bi lu ma ump amul lenn lu nekk ci téere bi loo xam ne ump na ma rahimahullah mu doon wax ne téere bu ma taalif ci samay téere dama koy taalif ñetti yoon muy ñetti yoon la ciy jaaraat ko taalifee dina ci dina ko taalif mën na ko dina ci jaaraat ñetti yoon da koy taalif mel na ku koy taalifaat mel na ku koy taalifaat ba muy ñetti yoon lépp rek ngir gën koo seetal settantal ak càmbar ko xool ko ba xam amul benn njumte boo xam ne mu ngi ci téere bi loolu day wane ne kon nit ku amoon rigueur la nit ku doon bàyyi xel bu baax li muy bind ak di ko xool ci xam-xam la lu ci nekk da ko daan càmbar bi muy solo xadis itam daan ko jële ci borom xam xadis yi noonu la ko daan euh, defee ndax waxoon nañ léegi ne alimaamul Buxaari bu musaan ñëw ci nit di jël ci yow xadis daawul ñëw rek ne la nettale ma nga nettale ko mu dem mais daan na jàng ci yow lu bëri daan na ko xam ci yow moo tax téeréem bu màgg boobu mu tuddee ak taarix nga xam ne téere bu mag la ci téere yi nettali dund ñi nga xam ne ñooy solo xadis yi nee na ci kenn ku ma ci bind ci téere boobu am na lu bari lu ma xam ci sa dund loo xam ne mënoon naa ko expliquer ci mënoon naa ko expliquer ci téere bi waaye dama doon bañ téere bi gudd loolu mu ne kenn ku ma fa bind rek am na lu bari lu ma xam ci yow ci sa dund mais damay bañ téere bi gudd loolu loolu li muy tekki kon mooy daan na leen jàngat xam leen bu baax a baax a baax ci anam boobu la daan solo xadis kenn ci ndongaam yi nee na mës na fanaan ak moom benn guddi waaye nee na seetlu na ne alimaamul Buxaari yi lu bari dafay dem ba xaaju guddi mu jóg taal lampe bi am lu mu bind te nee na wàññi naa ko lu war a tolloog ay fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ni dafay jóg ci guddi gi bu jógee am lu mu bind am not bu mu def ci benn xadis wala yu mel noonu daal di tëddaat ci guddi gi loolu day wane yitte bi nga xam ne yitte woon na ko xadis nga xam ne amul daanaka ci àddunaam yitte bu gën a rëy xam-xamu xadis ci alimaamul Buxaari même ndongaam li daan ànd ak moom tamit Muhammad ibn Abi Hatim Abu Jaafar doon na wax tamit ne daan na fanaan ak moom léeg-léeg bu ñu mësaan nekk ci ay tukki daan nañ dem wàcc fenn ñu fanaan ci benn néeg neen dinaa wàññi lu war tolloog quinze wala vingt fois yoo xam ne dina ko jub ci guddi gi taal làmp bi jël xalima bi ak daa bi ma gis ko mu am xadis yi mu génne am lu mu ci bind am lu mu ci defaraat daal di tëddaat dina ko def ci guddi gi nga xam ne loolu li muy tekki mooy xadis àgg na ko foo xam ni da koy sax xañ nelawam da koy sax xañ nelawam rahimahullah moo tax abbas ad di woon tamit Euh, ndonga ci ndonga yi jëre ci ku mel ni albuxaari yi ak ci ku mel ni abu daawud doon na wax ne gisuma ku rafet ni muy sàkkoo xadis ba mel ne alimaamul buxaari gisuma ku mel ne moom ndax daawul bàyyi dara lu nekk daf ko daan topp ba mu jeex ci li muy sàkku ci xam-xamu xadis daawu ci bàyyi dara moo tax daan na wax ay ndongaam naan leen bu leen bàyyi dara ci wax alimaamul buxaari lu dul ne bind ngeen ko lu ngeen dégg ci waxu buxaari rek bind leen incha allah lii pour bañ gaay naraw moo tax benn bis dafay wax benn xadis am nit ku ko interpellé di ko laajaat am lu mu koy laaj ci bi mel na daal dafa am xëy na lu mu ciy njort alimaamul Buxaari xool ko ba mu yàgg mu ne ko moo tax dangay ngaa yaakaar ne damay nettali xadis am lu ca nekk lu ñuy dengi dengi ma koy nëbb am lu ca nekk lu ñuy dengi dengi ma koy nëbb bàyyil naa nit lu tolloog fukki junniy xadis yoo xam ne ma ci benn xadis ndax dafa am njort bu ma am ci moom ci nit kooku nit koo xam ne lu mat fukki junni xadis mokkalal naa ko ko benn xadis nettaliwuma ko ndax rek njort lu ma am ci moom li nazarin li ya fii bàyyil nit lu ëpp loolu ci ay xadis yoo xamante ni ma ci benn lu tax ndax njort loo xam ne am naa ko ci moom mooy sama xel dalul ci moom sama xel dalul ci moom waxuma xamal ko lu tax waruma mën a nettali ci moom mais sama xel ñàkk dal ci moom ma seppi sama loxo ci ay xadisam ak li ma koy mokkal mokkal yépp kon waruma mën a nettali xadis am lu ma cay nëbb loolu ko alimam Bukhari wax loolu di wane kon moytundiku bu moytundiku woon ak rigueur bu mu amoon ci wàllu xadis ak bu ko daan jàng ak bu ko daan nettali moom rahimahullah daaw ko sàggane benn yoon yàlla mayoon na ko tamit ne comme ni ñu waxoon ci tàmbali bi ku teel a sut ay maasam la comme ni ñu koy waxee la chaque ne loolu mbiru yàlla moo ci jiitu waaye tamit léeg-léeg góorgóorlu nit kii dina am lu bari loo xam ne dina ko ci def ak pasteef boo xam ne dina ko am pasteef boo xam ne dina ko am ndax pasteef moom daanaka lu ko ëpp kàttan ak doole ci nit amul ginnaaw ndimbalu ndimbalu borom bi subhanahu wa taala moo tax bu musaana dugg di dëkk bu mag ci dëkk xam yi nekkoon Irak borom xam-xam yi fa nekk dañ ko daan topp mu bañ a topp dañ daan topp rek di wax di ci topp di mocc ba mu toog gaa yi wër bu toogee lu mat ay junni junni nit ñoo koy wër fekk boobu ndaw la chab la ndaw la loo xam ne sikkim sax amagu ko ñu koy topp topp ci ginnaawam mbooloo mi topp ko bu duggee basra li fekk toogul gaa yi dañ koy topp ba mu toog bu toogee gaa yi wër ko mu commencé di nettali xadis noonu lañ ko daan def rahimahullah fekk boobu sikkim sax amagu ko moom alimaamul Buxaari rahimahullah moo tax benn borom xam bi ngi wax ne benn bis nekk naa basra ci jumaa ju mag ji aw ma loolu jékki-jékki dégg kenn ku yuuxu naan yéen waa Basra Muhammad ibn Ismail ñëw na de dawleen leen dem leen seeti ji ko Muhammad ibn Ismail ñëw na de dem leen seeti ji ko maanaa boobu jamono yooyu nit ñi noonu lañ xëre woon ci xam-xam mu mel ne tey nit koo xam ne day séddale ay billets dix mille bu ko nit ñi déggee ne ñëw na nit ñi dawee di wooteente ji bu njëkkoon nit ki yor xam-xam bu mu saan dugg benn dëkk noonu lañ ko daan def benn bis benn buur génn na dem benn dëkk kenn topp ko maanaam waa nit ñi fu ñu ne wëlbatiku seen mbooloo mu bëri topp kenn ba seen i dàll di jaxasoo ko dagg mu naan waaw kee kii mooy kii ñu ne kii mooy Ibnul Mubarak kii mooy Abdullah Ibnul Mubarak moom mu wëlbatiku gisul kenn kenn topp ko mook ay gaawam rek ñu ànd Ibnul Mubarak romb nit ñëpp dem topp ji Ibnul Mubarak rahimahullah daa yaakaaroon ne dëkk bi dafa am lu fi xew ñu ne ko dara xew Ibnul Mubarak moo fi ñëw bu njëkkoon nit ñi noonu lañ meloon dayoo boobu lañ joxoon borom xam-xam yi loolu moo tax ngay dégg kon maanaa ñoom tamit ba léegi barke bi yàlla def ci ñoom ak tamit li ñu jeexitaloo ci xam-xam loolu moo tax mu mën a am mais léegi nit ñi contraire bi la ci àdduna rek la ñuy la nawee nit àdduna rek moo tax mu wax ne nit ñi dañ daan daw ne ko mu ne leen nit ñi nit ñi dem leen ci Buxaari yi dëkk na nee na ma daal di ànd ak nit ñi dem nee na bi nga xamante ni dem nañ baag si ci fa mu toog ci jumaa ja nee na ma ñëw gis benn waay alimaamul Buxaari dafa sewoon amul woon yaram ba pare njoolul woon loolu gàttul woon dafa digg doomu woon nee na bi ma ñëwee ma gis benn ndaw ndaw jamono jooju fekk nekkul sax mag ndaw la mi ngi julli ci ginnaaw benn ci potoy jàkka ji ci ginnaaw benn ci potoy jàkka ji di julli nee na gaa yi toog di ko xaar mbooloo mu bari moo xam ni kenn xamul nuñ toll ñu ngi toog di ko xaar dafa sëlmal rek gaa song ko dafa sëlmal rek gaa yi song ne ko foog nga nettali ñu mu daal leen ne bismillah daal di wëlbatiku jàkkaarloo ak ñoom tàmbali leen nettalee xadis bi mu leen nettalee ba mu jeex mu jóg ci su bëgg a mu ñëwaat gars yi toppati ko bi mu toogee ci jotaay bi mu ne leen man ndaw laa maa ngi ñëw fii ci Basra ngeen topp ma ne naa leen nettali léegi dinaa leen nettali xadisu ahlul Basra xadis waa Basra muy xadis ci seen i sëriñ rek laa leen di nettali bu ko defee yéen ngeen jariñu ci ci la leen tàmbali leen nettali xadisu ahlul Basra rahimahullah moom al imaamul Buxaari doon na wax benn bis wax na waali Buxaara mooy gouverneur Buxaara ne ko léeg-léeg dinaa dégg xadis ci Irak dem ba Cham soog ko fa bind soog koo bind moom daawul dégg di bind ndax da koy mokkal mais comme borom xam-xam la dafa amoon ay téere li mu daan jàng ci xam-xam daan na ko bind ci ay téere waaye soxlawul bind ci saa si ndax da daan mokkal ne léeg-léeg xadis da daan déggee Basra wala benn ci dëkku Irak yi bu demee ba Cham fu mel ne Syrie Jordanie Palestine bu demee ba foofa soog ko faa bind wala mu déggee ko foofu ñëw ba Irak soog koo bind kooku ne ko ndax da nga koy bind lépp mu noppi waxul dara xëy na dafay dafa dafa dafa xam ne waa ji xëy na xam-xamum sorewul ci xadis moo tax waaye alimaamul Buxaari ni mu daan mokkale dafa jéggi woon dayoo noonu mu meloon ci xam-xam tamit xëy na boo ci topp boo ko toppee mbir la moo xam ne neexul jeexal ndax lu bari ci ñu nettali dundam ku mel ne Ibnu Adi al Jurjaani ci téere bi nga xam ne def na ko ci سيرين ييغا خا نني امام البخاري جانغي نا سي نيوم خام خام موي اسامي من روى عنه البخاري امنا امنا نتالي بوم نتالي سي دوند البخاري لو باري ابن عدي مام تيميت بروم خام لا وون سي نيتو سي بروم خام حديثي الامام الذهبي تيميت الذهبي سي سير اعلام النبلاء دجالين لو باري سي دوند البخاري لاتا مام كو ملني الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد waye bo setlo tamit ni ngay yemo ci xam xamam ak ci njangam Euh, boo xoolee tamit ci jikkoom ak ci doxalinam noonu nga ci yéemoo ci jikkoom ak ci yaram ak ci ni mu nekkee woon nit koo xam ne nit ku ku ku doylu la woon ci àdduna nit ku laawoon biir la nit la woon koo xam ne ku tabe la woon ku bari woon lu muy joxe la waxoon nañ sax ne daawul tàggale ko ak mbuus mi nga xam ne ci la daan def xaalisam ndax fu mu toll rek daf daan jox nit ñi ku ragaloon yàlla la ku téye woon làmmiñam la ku ragaloon di wax ci nit ci nit la sax ñi nga xam ne dañuy solo xadis ñu leen di tuddee ay ruwaat nga xam dañuy wax ci ñoom wax jooju ñu koy tuddee jarx ak taadil muy wax joo xam ne lu dagan la lu mën a nekk la ndax borom xam-xam ne dañoo dëppoo lu mën a nekk la lu yell la lu jaadu la sax ndax ñoo ñu wax ci ñoom dañ ko war a def ngir sàmmee ko diine ngir sàmmee ko diine ndax bu ñuy wax ci nit ci loo xam ne sa xëy na ajowul ci diine di ko seede ci moom kon bu dee ci wàllu diine ak sàmm diine ci la gën a yel yeeyatee ci la gën a yellatee loolu moo tax borom mi jàpp ne wax jooju ñuy wax ci ci ci ñooñu di solo xadis yi dara nekku ci wax ju jaadu la mais al buxaari ak loolu yëpp bu daan wax ci ñoom dara mooy tundiku waxam wax ji daawul bari ba pare daawul ñagas daawul dis trop moo tax dañ day wax ne al imam al buxaari maarufun bi latafati al ibara dañuy wax ne huwa latiful ibara xafifu ibara maanaam waxam dafa oyof ci ni muy jamee nit bu bëggee jam nit jam ko ci mokkalam wala jam ko ci diineem dafay wax naan fiihi nazar sakatu anhu fihi nadar wala sakatu anhu wala yu mel noonu lay wax mais dañoo nan kazzab dajjal yu mel noonu di jëfëndiko ay baat yi du waxatu deug dede dawul def lol daf daan wax nan ah amna luñu mëna xol ci mom amna luñu mëna xol ci mom bu ko waxe az-zahabi neena wax joju li ci ëpp ku ko bukhari wax ci mom xamal ni ku ñu tuumaal la c'est pourtant wax ju oyof la mais zahabi neena mom gëstu na ba xamne al imaamul Buxaari daanaka du wax nit ne fii nazar lu dul ne kooku dañ koo tuumaal ne kuy sos kuy fen ci xadis la te pourtant wax ci oyof la mais bëggu la jëfandikoo baat bu diis bëggu la jëfandikoo baat bu ñagas rahimahullah wala mu ne sakatu anhu dañoo dañoo téye seen bopp ci moom dañoo noppi ci moom dañoo noppi moom yu mel noonu la daan faral di jëfandikoo loolu yëpp ragal yàlla yàllaam moo tax daawul faral di diisal ay waxam ci ñooñu moo tax mu doon wax naan maa ngi am njort ne dinaa daje ak sama borom te du ma xisaab ci ne jëw naa kenn ku mu mën a doon maa ngi njort ne dinaa dajeek sama borom te du ma xisaab ci ne am na ku ma mës a jëw ak ku mu mën a doon rahimahullah kim daan àndal di Muhammad ibn Abi Hatim di war a xam doon na wax ne alimaamul Buxaari bu waxtu njël bu waxtu fajar musaana jot laata ñuy julli nee na daan na jug jàpp julli lu tolloo fukki raka ak ñett nee na buy julli du ma yee nee na ma ne ko waaw lu tax booy jug heure boobu di di julli doo ma yee mu ne ma yow xale nga ndaw nga dama lay bañ a yàqal sa nelaw nee na limaam Buxaari daan na faral di def loolu su ma ko laajee mu ne ma yow ndaw nga dama lay bañ a yàqal sa nelaw rahimahullah am na benn borom bu wax ne muy Muhammad ibn Salaam al-Bikandi wax ne benn bis dafa toog ci benn jotaay al imam ñëw ko fan moom imam Bukhari ñëwee nees tuut mu dem bi mu demee benn borom xam ñëw aksi ma ne ko day boo teeloon a ñëw day léegi rek di nga fekk benn ndaw loo xam ne mokkal na soixante dix mille hadis ma nga noonu di dem rek nee na mu daal di wàññeeku topp ci topp ci ba dab ko daal dina ko ah sëñ bi yow de damaa dégg ñuy wax ne mokkal nga lu tolloog soixante dix mille hadis Bukhari na ko mokkal lu ëpp loolu mokkal na loo xamante ëpp na loolu te du la indil benn hadis jële ko ci saxaaba yi wala ma jële ko ci taabiina yi lu dul ne xam naa seenug juddu xam seenug faatu xam fa nga xamante ni fa lañ dëkk xam fa nga xam ne fa lañ dëkk du ma la nettali benn xadis jële ko ci saxaaba yi wala ci taabiina yi lu dul ne xadis boobu amal naa ko cosaan amal amal naa ko sukkandikukaay ci alquran wala ci sunna amal naa ko sukkandikukaay tegtal buy tegtale wéru xadis boobu ci alquran wala ci sunna loolu la ko ci alimaamul buxaari tegal am na benn borom am bu wax ne benn bis dañoo toogoon ci kër alimaamul Buxaari yi mu toog teg daawam ak ay téeréem nekk ci di bind xëy na fi mu ko teg daa xaw a tasaare bagage yi nekk ci xam nga rek boo nekkee ci say yitte ñu ñu toogee noonu rek benn jaamam bu jigéen romb daldi di fël daaji mu tuuru fël daaji mu tuuru mu daal di na ko ah xanaa seetluwuloo daaji ma teg nii kooku na ko yoon amul fu may jaar yoon amul fan laay jaar wax ko ci wax bu ñàkk teggin al imaamul Buxaari tàllal ko ay loxoom ne ko goreel naa la tàllal ay loxoom ne ko goreel naa la maanaam ak loolu mu def yëpp al imaamul Buxaari ko ci saa bi mu demee gars yi toog yàgg xàddamte ko ah, yow day dëgg yàlla xale bi kii bi mel na ne kii doon tooñ na merloo na la mu ne ah bu ma merloo itam day man gërëm loo naa sama bopp bu ma merloo ci li mu def man li ma def man kontaan loo na ci sama bopp maanaam bu fekkee lim mu def daf ma metti man léegi loolu dama koo fayee ngir dindi mer boobu ma def loo xam ne dama ciy kontaan mooy njëkk ak lu baax loolu ma def ndax lu baax loolu mu def da koy neex moom mu kontaan ci ba tax ñaawteef boobu koo ko defoon ba mu war caa mer mu fàtte ko loolu la leen ci alimaamul Buxaari tegal nga gis ne loolu lu jafe la loolu lu jafe la rahimahullah benn borom xam-xam doon na wax ne muy euh, al Xuseyn ibnu Muhammad as-Samarqandi doon na wax ne al imaamul Buxaari am na ñetti mbir yu ko yàlla may nee na bokkul ak sax yeneen jikkoom yi nga xam ne am na ko waaye nee na ñett yi dafa ràññee rek ci ay jikkoom yoo xam ne dama koo seetlu ci moom mu ne kaana xalilal kalaam nit ku woon ay wax la ay waxam bariwul woon beneen bi ci des tamit mooy ne daawul yittewoo daawul soxla lenn lu nekk ci loxo nit كان لا يطمع فيما عند الناس نيت ني سين علال يونم نيوت دو تي خلام وكان لا يشتغل بامور الناس كل شغله في كان في العلم امول وون تيميت ييتي ميري ادنا امول وون ييتي ميري نيت ميري نيت موي سين يفي ادنا سخلو كو وون ييتم ييب موي خام خام كومو بوكال جيو خام خام موم من ngeena bokk ab jew man ngeena bokk ay jotaay mais bu dee leneen mooy sa yitte bu yóbboo nga xam ne yàgg Buxaari du ngeen bokk jotaay bu dee leneen mooy sa yitte xamal ne yàgg Buxaari du ngeen bokk jotaay ñi ngi nettali ne xam bi di mu Muhammad ibn Abi Hatim mu ne alimam Buxaari dafa amoon benn suuf ak tool boo xam ne moo ko moomoon waaye comme mënu koo bay daf ko daan luyee loolu lu mën a nekk li ñu tuddee kiraawul ard da ko daan luyee ki ko luyee woon di ko bay mu luyee ko ko lu tolloog juróom maanaam juróom-ñaar téeméer ay dërëm ci dirham bu ko fu kooku bayee at fay ko at at mi la koy fay loolu léegi kooku daan def léeg-léeg mu witt lenn ci la fay sax ci gàncax ci ay légumes léeg-léeg mu dagg benn concombre wala ñaar ñëw jox ko may ko Buxaari waaye njëkk boobu mu doon defal Buxaari dafa taxoon at mu jot aliment Buxaari dina dina yëkkati lu tolloog téeméeri dirham jox ko dina yëkkati lu tolloog téeméeri dirham jox ko ko ngir delloo ko njëkk boobu nga xam ne kooku daan na ko ko defal te loolu ko kooku doon jox daana ko du dara ndax dañuy wax ne léeg-léeg benn concombre lay dagg wala ñaar ñëw indil ko ko mais comme daan na ko jaral mu jógee ci tool ba ba ci Buxaari ñëw jox ko ko rek alimaamul Buxaari daana def at mu jot mu yëkkati ci alalu boppam lu tolloo téeméer jël ko jox ko waa jooju njëkk boo xam ne daan na ko ko defal rahimahullah wax nañ ni tamit ba léegi mës nañ koo yónnee ay marchandise nee nañ doomam moo ko yónnee loolu luy indiwaat masalatu ndax bu Buxaari am na njaboot wala déet ndax ñu bari lañu wax na ci ñi nettali dundam ñenn dañu wax ne Imaam Buxaari amul njaboot am na njaboot ci ne amoon na ay mag ak ndeyam ak kër goo xam ne fa la yaroo waaye moom ci boppam takkul soxna amul ay doom am na ñu wax loolu mais am na ay yenn riwaay bu ñu solo jële ci moom yoo xam tudd nañ ci doomam comme lu mel ne marchandise boobu ñu ko yónnee woon ba ay ay commerçant ñëw waxaale ko ak moom nee nañ ci yenn riwaayat doomam moo ko ko yónnee woon bu fekkee loolu da ko yor ne doomam la xëy na mën na nekk ne mës am njaboot ala kulli xaal bi nga xamante ne marchandise bi ñëw na ay commerçant dañoo ñëw waxaale ak moom proposé ko benn prix boo xam ne tegal nañ ko ci bénéfice lu tolloog juróomi junni xam yoo xam ne tegal nañ ko ci ci ci valeur marchandise bi mu ne leen dem leen après ba ngeen ñëwaat maanaam dëppoowul ak ñoom ci jaay leen ko mais mu wax leen ñu dem pour après bu ñu ñëwaatee ñu xool bi ñoo ñu demee après ñeneen ñëw bi ñeneen ñi ñëwee proposé ko prix boo xam ne war na ci gagné lu tolloog fukki junni ci ay dirham mu ne leen duma leen ko jaay dafa am ñu ma waxaloon démb ñooñu laa xas ba yéene dinaa leen ko jaay ñooñu laa xas ba yéene waxul ne ñooñu laa dëppoon de waaye ñooñu laa ba yéene ne dinaa leen ko jaay comme yéene woon na ci xolam ne ñooñu la koy jaay ñii ñëw tegal nañ ko ma bénéfice boo xam ni duubalu li ko ñële fay la mais mën a ñële laa koy jaay loolu jikko yu mel noonu danga koy dégg waaye yombul de balaa nga ko xam rek ngay commerce nga koy xam rek ngay commerce xam ne loolu yombul loolu day wane ne xëy na ay nit lañu woon yoo xamante ni wàllu alal yitteelu leen woon loolu buñ buñ ci yëngatu tamit di ci jëflante duñ ci duñ ci ci sonal seen bopp daal ala kulli xaal duñ ci sonal seen bopp luñ ci am rek baax lu luñ ci am rek baax na Euh, li nga xamante ne borom foofu mi nañ ko wax ci alimamul Buxaari ci di ko xëy na mën a wax ne tagg waaye daan yéemu ci moom ak di ko wax bari la ci wax yoo xam ne nañ ko ci alimamul Buxaari ci ni leen jaaxale woon ak ni mu leen yéemee woon benn borom xam dafay wax ne ki ku bëgg a gis borom xam dëgg dëgg dëgg bu tax ñuy wax borom xam na xool alimamul Buxaari bu ko gisee gis na borom xam-xam ku bëgg a gis borom xam dëgg na xool alimamul Buxaari benn waaye moom yaxya ibni jaafar daf daan wax naan su ma mënoon jël ci sama dund yokk ko ci dund al imaamul buxaari dama koy def ndax nee na man bu ma faatoo benn waaye bu faatu la rek mais nee na buxaari bu faatoo mooy xam bu dem la moo tax man su ma mënoon jël ci sama dund yokk ko ci dundam koy def ndax man su fi jógee kenn laa ci nit ñi rek ku fi jóge waaye nee na buxaari moom bu demee mu ne zahabul ilm la mooy xam-xam bu dem xam-xam bu dem géej goo xamante ne bi dem na Nuaym ibn Hammad doon kenn ci ay sëriñam yi ko jàngal doon na wax ne al imaamul Buxaari mooy borom xam xaw mu xeet bii nee na mooy boroom xam nee na faqihu hadihi umma borom xam xeet bi nee na mooy al imaamul Buxaari rahimahullah Isxaaq ibn Rahoya doon tamit ci kenn ci sëriñam yi nga xam ne ñoo ko jàngal di kenn ci maas maasu al imaam Ahmad Isxaaq ibn Rahoya daan na wax naan dee leen jële dee leen bindee ci ngóor sii dee leen bindee dee leen jële ci ngóor sii buxaari la ci namoon bu fekkonte ni dundoon na ak alxasanul basri day alxasanul basri dina jële ci moom dina dem jële ji ci moom loolu dara waralu ko lu dul xam goo xamante ni xam na ko xadis maîtriser na ko xadis loolu moo ko waral bu jamononte woon ak xasan sax xasan dina dem jële ji ci moom kon góorgóorlu leen ngeen dem jële ci moom benn borom xam doon wax muy ali ibnu xujur doon na wax ne xuraasaan mooy gox ba nga xam ne fa la Buxaari génne ci dëkk yoo xamante ni xëy na dafay dig digaloo diggante Tajikistan Afghanistan ak Iran ak lenn ci dëkk Iran xëy na ci Tajikistan la gën a jege ak dafay wax ne xuraasaan génn na ñetti kilifa ñetti ponkal kenn ki mooy Abu Zura Razi benn ki ci des mooy Muhammad ibn Ismail al Buxaari keneen ki mooy abdullahi ibn abdirahman addaarami mu ne waaye muhammad ibn ismail al buxaari ci li ma jàpp day moo leen ëpp xam-xam gën leen a teew ak gis-gis gën leen am dégg-dégg ci xam-xamu xadis ñoom ñetti ñooñu te ñetti ñooñu boo leen xamee xam ne ay kilifa lañ ci xam-xam ay fóore lañ ci xam-xamu xadis mais mu ne ñetti ñooñu nga xam ne génne nañ ci dëkk boobu ci borom xam-xami xadis mu ne buxaari yamul ak ñoom ba léegi tamit benn borom xam-xam doon na wax naan laa aalamu anni raaytu mislahu ka annahu lam yuxlaq illa li xadis benn borom xam xam doon na wax ne man day xaw ma ne mus naa gis ku mel ne alimamul bouxaari musuma gis ku mel ne alimamul bouxaari mooy alxusayn ibne xorayt nee na albuxaari dafa mel ne yàlla da koo sàkk ngir xadis dafa mel ne yàlla da koo sàkk ngir xadis maa daal li tax yàlla sàkk ko mooy ngir xadis fàttaliku ma ni gis naa ko mel ne moom loolu la doon wax bi mu demee màkk tamit borom xam-xam ni màkk yi dañ daan wax naan alimaamul buxaari suñu kilifa la mooy tamit suñu borom xam-xam mooy suñu kilifa mooy suñu borom xam mooy borom xam-xamu xorasaan muy gox bi nga xamante ni fa la jóge abu tayib xaatim ibn mansour doon wax ne muhammad ibn ismail ayatu min ayatillah doon na wax ne al alimaamul buxaari kéemtaan la ci kéemtaane yàlla yi ci sew gis-gis bi nga xam ne am na ko ci xam-xamu xadis ak timit ñaw gi nga xamante ni ñaw na ko ci xam-xam ñaw gi nga xam ne ñaw na ko ci xam-xam nee na kéemtaan la ci kéemtaan yàlla yi beneen borom xam dañ wax ne bu fekkonte ni Waki' ibn al-Jarrah ak ibn Uyayna ak Abdullah ibn Mubarak doon nañ dund ba jamonoonte ak ngóor sii day dinañ ko aajowoo dinañ ko yittewoo xam-xam bi nekk ci moom dinañ ko soxla ñooñu liñ doon géeju géeju yépp ci xam-xam buñ jamononte woon ak ngóor si dinañ soxla xam-xamam ndax nu alimam buxaari feese woon ci wàllu xam-xam moo tax alimam ahmad ibne hanbal doon wax ne lam yajina min xurasan mithlu muhammad ibne ismail doon na wax ne amul ku ñu mës a dikkal ku jóge xurasan ku mel ne muhammad ibne ismail al buxaari ku jóge xurasan ñëw baghdad fi alimam ahmad dëkkoon mu ne ku mel ne muhammad ibne ismail al buxaari amul تلول بقى الإمام أحمد وحي بينا الإمام أحمد هو إمام أهل السنة وهو من هو في علم الحديث أبو بكر بن خزيمة دي برم الصحيح بن محمد بن إسحاق دون وحنا جسما تشوف أسمان كجنا خم حديث جن كو مكل محمد بن إسماعيل البخاري نينا جسما تكو خم أسمان يير نكو mu nekk ci suufu asamaan ci doomu aadama yi koo xamante ni bi gën naa xam wala mu gën a mokkal muhammad ibn ismail al bukhari xadis xam-xamu xadis gisuma ko muhammad muhammad ibn ishaq ibn xuseym moom lañ tuddee imaamul aima di kilifa gu mag a mag ci xam-xamu xadis moom moo seede seede bu mag boobu ci al imaamul bukhari muslim ibn al hajjaj al imam muslim an naysaburi borom kitab as sahih jànge na ci mus ci bukhari mus na toog ci benn jataay ñu tudd fa benn xadis mooy xadisu kafaratul majlis xadis bi dafa am njumte ci nekk njumte loo xam ne boo ko xoolee doo ko gis borom xam yu gën a wax ci xadis dañ koy nettali lu ñu xam ne am na njumte ci nekk biñ ko nettalee alimaamul buxaari waxul dara noppi alimaam muslim na ko ah xadis bi day doy na war de mës ngaa gis xadis bi ñu soloo ko ci àdduna ci beneen càllale bu dul càllale bi maanaam càllale bi ñu ko soloo ci biir rek la ñëwee ndax gis nga ko ñu soloo ko ci ci beneen anam bu budul bii alimaamul Buxaari na ko déedéet waaye nag am na lu ca nekk alimaam Muslim dafa tiit bay lox ne ko lan moo ca nekk jug ñëw foon bopp Buxaari di ko ñaan bay bëgg a jooy ne ko wax ma lan moo nekk ci xadis bi alimaamul Buxaari na ko suturaalal lu yàlla suturaal imaam Muslim insisté mu ne ko bu fekkente ni insisté nga kon bindal ma wax la daal di koy nettali xadis bi ni mu wéree leeral ko ne ko bi ñu wax dafa am jumte lu ci nekk alimam muslim ne ko bàyyi ma ma pon say loxo pon say tànk ndax yow yaay sëriñu sëriñ yi yow yaay docteuru hadith ne ko maa ngi wàcc yàlla ne ku soxor rek iñaan rek moo lay bañ loolu la ko alimam muslim wax xissa boobu xissa bu siiw la box borom xam yi solo nañ ko ci alimamul buxaari ni nga xamante ne bi noonu la maîtriser woon xam-xamu hadith kon mën nañ taxaw foofu insha allahu taala ba julli ba pare ginaaw bi ñu àggal li nga xam ne moo des ci waxtaan bi incha allah wallah membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn dakaar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën jëm ci kanam comme lu ñu doon wax ci li nga xam ni borom xam-xam yi wax nañ ko ci alimaamul Buxaari rahimahullah loolu yëpp dafay gën a jëmmal ak gën a wanewaat eh, ni nga xam ne meloon na ko alimaamul Buxaari ci boppam ci boppam ci wàllu xam-xam ak ragal yàllaam ak sàmm koo xamante ni sàmm woon na ko ci mbiru diineem li ñu wax ci moom bari na loolu li nga xam ne moom lañ ci mujj mujj mujjee mujjee tudd moom lañ ci mujjee wax mooy loo xam ne Saïd ibn Jaafar wax na ko nee na dégg na borom xami Basra ñuy wax ne alimaamul Buxaari amul ku mel ne moom ci àdduna ci xam-xam ak ci yiw ak ci sell ñuy wax ne xam amul ku mel ne alimaamu Muhammad ibn Ismail ci xam ak ci sell goo xam ne sell na ko yiw goo xam ne yiw na ko ci boppam alimaamul Buxaari dundam am na ay taxawaay yu bari yoo xamante ni mënees na ko cee ndax dafa am ay jaar-jaar yoo xam ne jaar na ci yoo xam ne jafe la rawatina ci njeexitalu dundam ndax li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ne inna ashadda annaasi balaan al anbiyaau summa al amsalu fal amsal nit ñi dañ leen di nattu kéem seen diine fu mu toll yonent yi ñoo gën a tar nattu ni leen yàlla di nattoo ginnaaw ba lu nit ki gën a yiw rek noonu la nattoom di gën a mettee ci àdduna الإمام البخاري mom tamit amna lenn ci ay nattu ak ay jafe-jafe yo xamné tane jamon jamar jaamarloon ak mom ndax léeg-léeg tamit genn ràññeeku bi bu ko yàlla defé ci nit léeg-léeg jafe-jafe la koy jural li tax mu koy jural jafe-jafe moy da fay am ay nit yu ko soxore te bu ay am amé nit yu ko soxoré rek ndax ràññeekoo ko ràññeekum gi mu ràññeeku dinañ ko jëm a dinañ ko jëm fi xel xasad loolu lu nekk ci doomu aadama la lu jafe not la lu jafe maîtriser la xasad muy soxor rawatina ay maas yoo xam ne dañoo maase ba noppi yàlla de kenn ci ñoom am ak ràññeeku bu nekk ci moom koo xam ne newul ca ña ca des bu nit ki dimbalikoowul yàlla jéem a fexe not bakkanam dina am ay yëg-yëg yuy nekk ci xolam di jëm ci mbokkam boobu loolu boo ko toppee mën na dem ba tax mu jéem a jël loraange jëmale ko ci moom ngir faj safara soosu nga xam ne mooy tàkk ci bakkanam ndax safara safara la boo xam safara bu tar la muy alxasar loolu moo tax euh, Abdullah ibn Abbas daan wax naan euh, dee leen jël xam-xamu borom xam-xam yi te ku di jël wax yi ñuy waxalante ci seen biir dee leen jariñoo ci seen i xam-xam te moytandiku di jël wax yi ñuy waxalante ci seen biir ndax dañuy fiirante ci seen biir dafa am fiiraange buy nekk ci seen diggante loolu concerné wul xam-xam bi ñu yor waaye ci seen nit la ci seen nitee lay dellu ci seen i bakkan lay dellu ndax nit ki lu mu xam-xam ak lu mu yiw yiw ak lu mu baax baax du ko teree nekk nit ba léegi doomu aadama la te doomu adama dafa am ay limite doomu aadama mën na sell mën na baax na am la chèque du jaagante ni ñëpp ala mikk foog loolu nekk ci ñoom mais ñi mucc ci loolu ñu néew lañ moo tax bi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu salaam wax na ci benn waay ne dafay dem aljanna ci benn jotaay bu ñu mës a mu ne bu ngeen toogee tuuti nit nit kenn nit ci nit aljana yi dina teew ci jotaay bi ñu biñ toogee tuuti waa ji waa ji ñëw mu ngi yore ay dàllam jóge ci njàpp ba sikkim baa ngi tooy jégul dara ci liñ doon wax ci ginnaawam bi mu ñëwee toog nit ñi xoolante noppi ci ñaareelu fan bi yonente bi alayhi salatu wasallam waxaat loolu waa ji ñëwaat ci même anam bi mu ñëwee woon démb bi ko abdullah ibn amr ibn ab ibn amr ibn al-aas gëstoo dem këram ba dëkk moom xool ne waa ji li muy def ci jaamu yàlla nekk lu jéggi dayoo loo xam ne nit ñi defuñu ko kon lan moo war a mën a tax yonent bi alayhi salatu wasalam wax ci moom ne nitu aljanna la bi mu ko laajee waa ji def na ko man defuma leneen dul li nga gis ci xëy na yéen li ngeen di def ci jaamu yàlla moo ëpp li may def mi ngi naam waaye góorgóorluwul ba àgg foo xam ne ñoom àgguñu fa bi Abdullah demee mu woowaat ko ne ko am na lu ma la fàtte wax ci sama bopp xëy na mën na am loolu bokk na ci dara wóoru ko ci mais am na lu nekk ci moom mooy ne dencalul kenn soxor wala keñaan ci xolam amul ku yàlla di defal yiw lu dul ne yéene na ko lu dul ne yéene na la ko Abdullah ibn Amr ne ko nag lii nga ñu rawee lii nii ngay xeeb moom moo ñu të ñun ñun moo ñu të moo ñu jafe ndax loolu lu jafe la mooy am xol bu mucc boo xam ne du dencal kenn lenn ak lu ko yàlla mën a defal loolu euh, xéwal gu rëy la ku ko yàlla defal kon lu jafe la ci nit ñi ba tax euh, euh, al imaamul Buxaari yàlla nattoo na ko loolu ndax bi nga xamante ni dellu na dëkkam ndax dafa wër dem ba yenn borom yi xam-xam di ko gis naan ko doy na nag léegi laaj na léegi nga dem xalaat ci delluwaat sa dëkk ngir toog nag sos daara joo xam ni ndaw ñi dañuy jóge fu ne ci àdduna bi ñëw di la fekk bi jariñ ci sa xam-xam ndax c'est vrai que ni bu toppee dëkk yi di toxu di dem ak a dem ni mu war a jariñee ci former ay nit dina def ndax fokk nga def daara toog ndaw ñi ñëw taxoo ak yow jël ci yow xam-xam pour mën a jeexitalu ci li ngay jàngale biñ ko bi ko bi bi mu demee ba yëg ne léegi nag war na dellu dëkkam toog fa bi nga xamante ni dellu na dëkkam am na ay jafe-jafe yoo xamante ni dund na ko ndax lenn ci borom xam yi fa nekkoon dañ koo xaw a ndax ndaw ñëpp dañoo bàbbee ko dem topp ji ko kenn ci ñoom euh, du dafa bon mais loolu lu lu li li ma waxoon léegi dina doy pour ngeen comprendre ne nekkul mbonte ndax li tax sax nekkul mbonte ci ne dañ ko ci xas wala ñuy wax ne kooku nii la mel wala naa mooy ne buxaari ci boppam ak li ko waa ji def yëpp taxul daan na solo ay xadis di ko jële ci moom taxul li ko waa ji def taxul mu bàyyi xadis waa ji ndax dafa gis ne borom xam-xam la des na war a jële ci moom donte sax def na lii ndax lii dafay dellu ci nitéem dafay dellu ci bakkanam moo tax bi ko lenn ci ay ndongaam ne da nga war a bàyyi xadis yi kii ndax lii mu def daf ne leen déedéet borom xam-xam la jële leen ci moom li mu def loolu leneen jéem leen xool lu ngeen koy layale loolu foog nit ki mën koo mën koo mën koo tàqale mooy ràññetle xam-xamu nit ki bi muy jëlee ci alxuraan ak sunna jëlee ko ci borom xam ak niteem niteem léegi bi nga xamante ni Buxaari ñoon tàmbal di jàngale gars yi bu koo fexee li ñu def mooy dañ ne kii am na ci masaayil yi nga xam ne masaayilu pas-pas la yoo xam ne jamono jooju nekkoon na ay masaayil yu yu yu yu bëri coow lool ci seen jamono ñu ne am na wax ju mu ci wax joo xam ne bokkulewu ko ak ñun liñ ci gëm mooy li ci ahlu sunna di wax li ci borom xam-xam ahlu sunna di wax ci dëkk yooyu nattu leen ko xool ba xam lan la ciy wax pour ngeen xam ne lam ciy wax ak ñun li ñuy wax bokkul mooy halil quran maxluq am la muy alquran bi nga xam ne kalaamullah la muy alquran bi ñuy jàng di wax yàlla ndax mbindeef la wala déet bi alimaam Buxaari ñooy toog ci jotaay bi fekk ne am na lu ñu ci jot a wax ay ndongaam yi dem di jàng ci moom bañ toog di ko préparé bi mu ñëwee toog rek kenn ci ndongo yi jóg daal dina ko yow al ndax alquran maxluq al imaamul buxaari daf ko fenetal nangoo koo ton fenetal ko biñ toogaatee ba mu yàgg mu daal di ci delluwaat al imaamul buxaari noppi waxul dara fenetal ko mu daal di delluwaat laaj ba mu ñetti yoon mu wëlbati ko jàkkaarloo ak moom ne ko alquran yàlla la nekkul mbindeef waaye nag jëfu nit ñi jëfu doomu aadama yi mbindeef la jëfu nit ñi mbindeef la bi mu waxee loolu jotaay bi dafa tas coow li jóg gaa yi wax coow li coow li jàppal bàyyil coow li coow li ñu tasaaroo alimaam Buxaari dugg këram daal di tëdd jàpp njàmburam ñu commencé ku ne di wax rumeur yi daw ci dëkk bi wax ci wax ci wax ji Buxaari li la wax Buxaari li na wax ba xam nga rek ak ni mu siwee woon jamono jooju fekk ñu tegaloon ko ndëgg sërëx doon ko xaar pour mu tàbbi ci bi mu waxee loolu ñu tas wax ji ndax dañ ko piège ndax jamono jooju dafa am lu ñu daan jëfandikoo ci lafzi bil quran maxluq loolu yàgg nañ di ci wax suñu kuru aqida yi ak li ci alimam wax ahmad waxoon ne bu kenn wax lafzi bil quran maxluq parce que wax ne lafzi bil quran maxluq fa huwa jahmi wa man qaala lafzi bil quran gayra maxluq fa huwa mubtadi loolu la imam ahmad waxoon ba ibnul qayim wax ca lam ca waxoon ci jëm ko taxrij pour expliquer lu taxoon mu wax loolu ndax wax la joo xam ni jahmiya yi mu ñi ñu doon topp jaxmi bi safwaan di yàq parce su nit ñi dañ ko daan jëfandikoo ngir tromper nit ki ndax bu ñu la waxee laf ribil quran mooy jàng bi may jàng alquran bindeef la daf lay mën a dugal ci njuumte duñ ci sori kon même wax jooju jëfandikoo jëfandikuwaat même piège boobu lañ jëfandikuwaat ngir piéger al imamul Buxaari nga xam ne loo tontu rek boo tontoo waaw wala déet loo mën a tontu affirmer wala nga infirmer mun nañ la dugal ci seen piège loolu lañ def al imamul Buxaari rahimahullah bi wax ji tasee am na sax ñu ko ne ko ñu ko wax ne ko ndax doo woo nit ñi ne leen dellu naa ginnaaw ci dama waxoon ngir ñu dellu si waat ñëw jàng ci yow xam-xam mu ne leen bàyyi leen bàyyi leen leen bu fekkente ni yitte woo nañ xam-xam bi ma yor dinañ ñëw bu ñu gisee ne wooñ ko duñ ñëw bàyyi leen leen noonu la al imaamul Buxaari rahimahullah toogee bi nga xamante ni wax ji dem na ba jéggi dayoo ba mu mënatul nekk ci dëkk boobu dafa génn ndaw ndongo li nga xam ne moo ànd ak moom nee na jour boobu bi imam Buxaari di génn ci dëkk bi dama dem ci ndaw yi daan jàng xam-xam yépp ne leen albuxaari day dem nee na bi muy génn man kenn maa ko topp gunge ko amul kenn ku ànd ak koo xam ne gunge na ko pour mu dem mu dem ba ca buntu dëkk ba toog na fa def fa lu man ñetti fan ngir jéem a xaar ba xam nit ñi seen xel dina del si waat ngir deram bi ñu yàq ñu del ci ginnaaw pour mu del si waat toog nekk ci jàmmam wala déet bi mbiri sottiwul dafa obligé dem mbir mi yemul foofu alimaamul Buxaari yi bi nga xamante ni même dem na ci sax beneen dal fa bi mu ñëwee bëgg faa dal wàcc ci buntu dëkk ba nit ñi yëg ko ñëw dikkal ko ak ay mboolooy mbooloo jox ko ay ay ay ay ay ay ay cadeau ci alal ju bari joo xamante ne jox nañ ko ko ci bis boobu ngir terale ko ko ci dégg na ñëw na seen dëkk waaye gouverneur ba fa nekk la gaa yi bind lettre gaa yi mu jóge dëkk bi jóge ñoo ko bind lettre na ko waajooju ñëw foofu day dafay wax ci pas-pas loo xam ne dafa wuute ak ak ñun liñ gëm na génn dëkk bi xoolaatal encore loolu yow yaa ngi ko xatal ci dëkk bi mu dëkk fii fi mu nekk ba mu am fi ay jafe-jafe mu génn ci dëkk bi ngir bàyyi la ak dëkk bi bàyyi la ak ndongo yi fi nekk ñu continuer di sàkku ci yow xam-xam continuer di taxaw ak yow dem beneen dëkk ngir nekk ci jàmmam dal foofa ci teyu bakkanam nga bindaat ab lettre lettre ba fekk ko fa ñu koy xor ñoo ñalaat foofu di ko fi indilee jafe-jafe ba gouverneur boobu ne ko da ngay génn dëkk bi ndax bi mu waxee nit ñi bu ñu dem ci moom nit ñi dañ ne ko kii kay kenn mënut a dox suñu digganteek moom foog ñu dem jàngee ci moom borom xam-xam bu toll nii waaye moom albuxaari ci boppam la wax na ko na génn dëkk bi al imaamul buxaari dafa obligé jógewaat ci dëkk boobu mu nekk ci ay toñ-toñ nekk ci ay jafe ci noonu la mujjee faatu mais di ci euh, nettali xissawu faatoom xëy na ci la ñuy mujjee insha allahu taala euh, balaa ñu fi ñëw dañuy wax ci ne al imaamul buxaari bokk na ci taxawaay yi nga xamante ne dafay gën a wane ak mokkalam bi mu demee Baxdaad ci li nga xamante ne Ibn Adi nettali na ko ci asaami man rawa anhum al-Buxaari ci benn téere boo def daf cee taalif daf ko taalif bind ci ñi nga xamante ni ñoom la alimaamul Buxaari solo jële ci ñoom da ciy nettali benn xissa bu doy waar boo xam ne sax ñeen dañuy wax ne xëy na dañ ciy jéem a indi ay sikki sàkk mais li gën a wér mooy ne loolu wér la lu ñu sukkandiku la ndax ci sëriñam la ko jële Ibn Adi mu mu wax ne ay sëriñam dañ koo nettal ne ko Buxaari bi mu ñëwee Irak ñëw Bagdad doon doon dëkk bu rëy rëy rëy rëy ci dëkk borom xam-xam ne ay fóore ñoo fa ñoo fa dëkkoon Bagdad bi fa Buxaari ñëwee ñu koy dégg di dégg coowam ak xam-xamam fu mu toll dañ ne kii foog ñu testé ko xool ba xam ndax li ñuy wax ci moom dëgg-dëgg noonu la demee borom xam-xamu dëkk ba daal di gisante ci seen biir waxtaan ne léegi ni ñuy def mooy buñ koy dalal di ko gàttandu ci jotaay bi nga xam ne fa lañ koy dal dañ ko fay laaj ay hadith pour xool ba xam mokkal na dëgg dëgg wala mokkalul gars yi jël téeméeri hadith yoo xam ni dañ koo jaxase dañuy jël càllale hadith bi jaxase ko ak hadith bi jël càllale hadith bi jaxase ko hadith bi dugalante ko ñu koy tuddee alqalb alqalb nga xam ne loolu foog nit ci maîtriser hadith dëgg pour comprendre téeméeri hadith bi ñu ko jëlee jaxase ko ba pare ñu jël fukki nit kenn ku nekk ñu jox la fukki hadith ne bu ñëwee ba toog ci mbooloo mi da ngay jub nga laaj ko say fukki xadis yi lan la ci xam yéen ñëpp ngeen laaj ko kenn ku nekk jox ko fukki xadisam jàngal ko ko ba mu dégg ko laaj ko ba xam lan la xam ci xadis yooyu ndax xam na ko wala déet bi alimaamul Buxaari ñëwee gars yi dalal ko mbooloo mi coow li junni junni fu nit fu ne nit jóge fa ci dëkk ba ñëw Buxaari ñëw na Buxaari ñëw na biñ ñëwee ba toog gaa yi dalal ko ba mu toog ba jotaay bi ne teg benn nit ci mbooloo mi daldi na ko mën day dama la bëggoon a am lu ma lay laaj mu ne ko bismillah mu daal di tàmbali jàng fukki xadisam laaj ko ne ko te xadis yi xam na ko xadis bu mu jàng ba jeexal Buxaari na ko la arifu xaw ma ko xadis bu mu wax laa arifu xaw ma ko gars yi seen biir borom xam-xam yi yi xamul dara naan ki mooy Buxaari kii ñuy laaj xadis man xaw ma ko kii xamul dara laa arifuhu lay wax laa arifuhu yëngal bopp du du ci teg baat la arifuhu lay wax noppi ba fukki xadis yi jeex keneen jógaat ne ko dama am lu ma la bëggoon laaj bismillah mu jàng ay fukki xadisam bañ ñoom fukk ñëpp jeex muy téeméeri xadis yu mat alimaamul Buxaari ay ayna saail al awal ana fi njëkk a laaj waa ji jóg mu ne ko sa xadis bi nga njëkk a wax taril ko ko comme ni ko waa ji waxe woon ba pare maanaam bi ko waa ji taree rek mokkal na xadis yépp taril ko ko ba xadis bi jeex mu ne ko xadis bi dafa njum juu dafa dañ cee jum nii la dellal ko ko taril ko ko ni mu ni mu ni mu ni mu ñëwee dem ci ñaareelu xadis bi ñaareel bi bii nga wax da nga cee jum nii la taril ko ko topp ko ba fukki xadis yi jeex ne ana ñaareel bi kooku jóg mu ne ko sa fukki xadis yi nga wax yii la taril ko ko comme ni ko waaji waxe ba xadis yi jeex ba fukki xadis yi jeex gaay yi daal di tax suuf ndoxo ci seen gémmiñ loolu lañ naan loxo dem gémmiñ ne lii musuñu gis lu mel ni musuñu gis lu mel ni bis boobu lañ nangul ne Bukhari moy amirul mu'minin fi xadis xam ne kii moom li am mayu yàlla la ndax ibnu xajar neena da daan tok ak serignam bi di al iraqi zainuddin al iraqi bi nga xamne moko formé neena al iraqi daf daan wax naan al bukhari limu def ci corriger hadith yi jubanti wat ko netali len ni mu tëddee nee na loolu moom mais liko jaxal moy mooy hadith yo xamni da fay da fay yaq dañ ko yàq ñu nekkaliku ko ci jataay bi mu mokkal ko nee na moom loolu moo ko jaaxal nan la ko mën a déggee benn yoon mokkalee ko noonu benn yoon daal di ciy jaaraat yépp tari ko téeméeri xadis yi te juumu ci benn yoon nee loolu moo yéeme ci xew-xew bi mu nekk xew-xew boo xam ne day wane mokkal gi nga xam ne alimaamul Buxaari mokkaloon na ko ci xadis ak may bi ko yàlla mayoon ci bunt boobu alimaamul Buxaari bi nga xamante ni am na fitna ak jafe-jafe yooyu mu am ba nga xam ne fa la mujjee di dëkkam amir ba ne ko day génn du fa des alimaamul Buxaari daal di génn jóge ci dëkk ba ndax mënu faa nekk ndax nekk bi mu fa nekkee condition yi ko amir bi posé mooy mu bañ a jàngale mu noppi toog mu xamal ko ne ko man du ma bañ a jàngale nee nañ sax problème bi li ko njëkk indi mooy bi mu ñëwee amir bi da ko bind benn lettre di ko ci ndokkeel di ko wax nag ne ko pour bu nee ñëw këram pour mu mën a jël ci moom xam-xam amul imaam alimaamul Buxaari fay ko fay bu bu bu bu tegu ci yar delloo ko tamit ndokkeel yi mu ko jox daldi na ko nag bu fekkee xam-xam moo la yitteel yow yaay wommatu nga dikkal ko waaye xam-xam du jóge fi mu nekk di la fekk si nee nañ loolu moo njëkk indi ay ñagas ñagas ci seen diggante loolu la ko waa ji dencal moo tax waa ji nag indil ko ay jafe-jafe ci wane ne ñoom dañoo teraloon xam-xam dañoo wormaaloon xam-xam daaw ñu nangu ay nit yi àdduna toog fële di leen yónnee ay correspondance daan leen ñëwal ngay ñëw ñun tey kuñ ci convoqué da ngay da nga naan lii teraanga la doo ko gëmee mais ñoom daawuñ nangoo def loolu du pour seen bopp du rëy bu nekk ci seen biir mais xam-xam lañ daan bëgg a wormal parce que xam nañ ni nitu àdduna yi dañuy bëgg di fowe nit ñi dañu bëgg ku ñu jëflanteel rek tuutil la yëkkati seen bopp ci yow yow mi yàlla jox xam-xam nag alxuraan ak sunna mu nekk ci yow waroo nangu loolu du ne da rëy waaye ngir yëkkati xam-xam moo tax boo gisee yonente bi alayhi salatu wasallam ne inni nuhitu an aqra alqurana sajidan aw rakian bi ne dañ maa tere ma jàngal quran su jóot wala ko borom xam xam ne dañuy wax ne xikma yi nekk ci loolu bokk na ci xikma yi ci nekk mooy ne su jóot bi ngay su jóot ak rukoox bi ngay rukoox ñaari anam la yoo xam ne anamu toroxlu la anamu suufeelu la yow booy suufeel ak di toroxlu sa jëmm ji ngay suufeel sa jëmm ji ngay toroxal ngir yàlla waaye alquran ji ngay jàng waroo koo toroxalaale ci anam boobu nga nekk comme alquran dafa màgg moo tax ñu tere ko ne ko bu sujjootee wala mu rukoo ci anam boobu bu mu fa jàng alquran ngir yëkkati alquran ak màggal alquran moo tax anam boobu sax ñu teral na bul ci jàng alquran kon loolu li muy tekki mooy bu la ko yàlla joxee bu nekk ci sa dënn bañ dem ba di la ko xoolee nga xam ne fu ñu tuddee sa tur nit ñi seen xel dem ci alquran ak sunna kon war nga di moytandiku ñooñ di la këll këlle moo tax alimaamul Buxaari bañ te loolu tamit dañ koy nettali ci ñu bëri ci gaa yooyu nga xam ne jàlloon nañ bokkoon na ci ñu ci gën a tar ku mel ne Malik ibn Anas rahimahullah ginnaaw loolu kon ci lañ ko teree mu ne ko nag fii moom su ma fi nekkee bu ma nit ñi laajee dinaa jàngale ndax yonent bi alayhi salatu wasallam moo ne man su ilaan ilmin fa katamahu aljamahu llahu yawma alqiyama bi lijaamin min naar ndax koo xam nañ ko laaj xam-xam bu mu xam mu lànq bañ koo joxe nëbb ko ba yawmal qiyaama yàlla dina ngalab gémmiñam ak ngalabu safara kon man loolu du ko nangu su ma fi toogee bu ma nit ñi dikkale di mu sàkk ci man xam-xam dinaa leen jàngal te nit ñi tamit nee nañ buur bi ñun parewuñu pour sax nga ñuy jéem a téye naan bu dem ci moom dañuy dem jàngi ci léegi mu daal na ko kon na génn dëkk ci la alimaam Buxaari na ko kon xalaas daal di génn loolu kon ci di ko génne bokk na ci bi mu génnee commencé di toñ toñal ci àll bi nekk ci ay dëkk dëkkaan da daan dem rahimahullah ci loolu la nekk ba ni nga xamante ne bi noonu la alimaamul Buxaari feebaree ci benn dëkk boo xam mi ngi tudd xartank xartank dëkk la boo xam ci dëkk Buxaara la bokk di ak ndëkk ndëkkaan su ndaw fala alimaamul Buxaari dem feebar fa feebar bu méttee méttee métti métti feebaram boobu ci la mujj faatu rahimahullah ndax bi nga xamante ni feebar bi metti na ndongaam li nga xamante ni bi moom moo nettali xew-xew bi muy Abu Mansour Ghalib mu Jibril dafa ne al imaamul Buxaari bi nga xamante ni feebar bi metti na après dafa bëggoon takk pour dem mu préparé bañ defal ko war waayam mu jóg bëgg caa jëm ñu yëkkati ko jàpp ko kii jàpp ci loxo bi ki ma jàpp ci loxo bi ci des ñu koy yóbbu mu dox tuuti séq ay jéego daal di ne damaa sonn teg leen ma yoor leen ma daal damaa sonn ci lañ ko yooree alimaamul Buxaari ni mu tëddee noonu nee na ci la tàmbalee di ñaq jëbi di ñaq noonu la faatu rahimahullah rahmatan wasia waaye laata muy faatu am na leen ci ndongam yi wax ne dégg nañ ko muy wax ne allahuma inna al arda qad daqat alayya bi ma raxubat faqbidni ilayk bi nga xamante ne suuf xat na ci moom kenn ci ndongaam yi nee na dégg na ko ci weer wi mu faatoo muy wax naan yow yàlla suuf li muy yaatu yaatu yépp dem na ba xat ci man mënatuma nekk ci kaw suuf li ma lay ñaan mooy nga jël ma ma dem fekk jël dem ci yow faqbid na ilayk ndongali nee na laata weer bi di jeex ci la alimaamu Buxaari génn àdduna ci weer boobu nga xamante ni ci laa ko dégg muy ñaan ñaan boobu bi nga xamante ni tëdd na noonu ci la leen wax ne leen bu fekkente ni faatu na nañ ko sàng ak ñetti sër yoo xam ne yu weex la buñ ci boolee kaala buñ ci boolee mbubb mbubb boo xam ne dañ ko koy jiitalal nañ ko rek laxas ak juróom ak ñetti sër yu weex yooyu loolu day wane fiq bi nga xam ne Buxaari am na ko ak tënku bi muy tënku ci sunna ndax yonente bi alayhi salatu wasallam ko laxasee woon euh, ci noonu la al imaamul Buxaari yi faatoo bi nga xamante ni faatu na ñi ko fekke di ndongam boobu nee na ci la kanam gi tàmbali di ñaq ñaq boo xam ne mosuma gis ñaq bu bare noonu te xam nañ ni ñaq boo xam ne nit ko daf koy ñaq ci jëwam ci jamonoy faatu dafa bokk ci màndargay texe loolu lu wér la ci sunna nee na itam bi nga xamante ne alimaamul Buxaari faatu na ba ñu defar ko bi ñu ko dencee nee na xabru bi dafa tàmbali woon di génne gëtt xetu gëtt gu neex boo xam nee ne xet gu mel noonu mosuma xeeñ xetu gëtt gi doon génn ci xabru al imaamul Buxaari na ay euh, cer ay taati garab yu mag yoo xam ne dafa sax ci saa si ci jamono yooyu ñu ko fa suulee rek dencee ci li wër xabru bi yépp ay taati garab yu mag daf ci daal di génn jëm ci kaw nee na bi nga xamante ni faatu na ñu yëgle ko bi ko nit ñi yëgee tàmbali di ñëw ci bàmmeelam ñi ko doon lor di ko di ko di ko di ko di di ko tooñ ak di ko soxoree bi ko déggee ne faatu na bi ñu ñëwee ci bàmmeel bi ñoom ñëpp dañoo rëccu li ñu doon def daal di tuub jéggalu seen borom rëccu li nga xam ne defoon nañ ko alimaamul yi rawatina karamaat yi nga xam ne gis nañ yàlla defal ko ko ci bàmmeelam bi nga xamante ni faatu na dem na sax ba ndongaam yi wax ne nit ñi dañ doon ñëw di tibb suuf si di ko yóbbu ndax xetu gëtt bi nga xam ne moo ci amoon ba mujj gi ne dañoo dem ba dañu mujjoon def dañ jël ay bant encadré ko bàmmeel bi pour kenn bañ accès amati accès ci bàmmeel bi ndax nit ñi commencé woon nañ di ci ëppal ak di ci jéggi dayoo loolu la ko yàlla subhanahu wa taala defal mu nekk ne al imaamul ala kulli xaal mbiram doy na war ndax euh, mi ngi faatu alimaamul Buxaari guddig samedi maanaam du bisu samedi mais ci guddi gi bu ñu nee suba la samedi ci guddi gi la alimaamul Buxaari faatu mi ngi faatu deux cent cinquante six la faatu alimaamul Buxaari 256 la imaam al Buxaari faatu waxoon nañ ne mi ngi faatu ci dëkk bu tudd xar tànk xar tànk bi mu faatoo mi ngi am 62 ans 62 ans juróom benn fukki at ak ñaar la am juróom benn fukki at ak ñaar ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñoom ñoo ko lor ñëpp daanaka rëccu nañ ci ginnaawam bi nga xamante ne faatu na nga gis tumuranke goo nga xamante ne moom la génnee àdduna ak tur bi nga xam ne bàyyi na ko fi ak liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam ak jafe-jafe yi mu fi jóge ak li mu fi def lépp ci ci ci àdduna waaye da gis ne jamono bi mu demee ba toog bañ war a gën a mën a jariñu ci moom ci la ko yàlla nattoo ngay xalaat ne Buxaari bu fekkonte ni bàyyi woon nañ ko dëkk boobu ñu ko dàq génn ko fa mu toogoon war a tàmbale yar ak jàngale nan la waroon mën a def ci lislaam loolu yëpp ñu neenal ko yàq ko ci bakkan rek sababu bakkanu doomu aadama ndax jamono jooju ci la géeju ci xam-xam ba gisatul fu tolloog moom ci xam-xam fu mu dem nit ñi dañuy yéemu ci moom ba ñaan ko mu dem toogi ji dëkkam ngir toog jàngale ak yar bi mu demee ba war a toog ngir jàngale ak yar ci ci la dënn yi tàmbale di di jóg ndax jàpp nañ ne bu fi toogee mooy ñun suñu mbir dafay yàqu kenn dootuñu tuddati kenn dootul ñëwati si ñun loolu loolu bakkan la loolu bakkan la loolu du yàlla loolu bakkan la nasalullah salaamata wal afiya ñu daal di tàmbali di ko fexeel ba yàqal ko loolu mu waroon jëriñ nit ñi jëriñ ko xeet bi yàlla rek moo xam lan la fa lan la fa naroon formé ci ay nit ak lan la fa naroon tuur ci xam-xam ñu indil ko ay jafe-jafe mu jóge fa di toñ toñan ci loo xamante ni tegul ci benn dëgg lañ ko tuumaal dafa mujj gi di wax ne képp ku ma waxal ne damay wax ne doomu aadama yi seen jëf du mbindeef wala alquran mbindeef la ku ma ko waxal waxuloo dëgg ndax daje naa lu toll junni boroomi xam-xam ci dëkk yi ma dem yépp ñu nekk ay fóore ci xam-xamu xadis nekk ñu ñu am pas-pas alquran ak sunna bu mucc ayib ma jànge ci ñoom jariñoo ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom da ngay wax ne alquran kalamullah xayru maxluq kenn ku nekk ci ñoom da ngay wax ne afaalul ibad maxluqa ku nekk ci ñoom li nga gëm mooy ne alquran waxi yàlla la nekkul mbindeef ku nekk si ñoom li nga gëm mooy ne jëfu doomu aadama yi mbindeef la loolu mooy sama pas-pas bi ma gëm maa ngi koy seddaloo yàlla di ko seddaloo képp ku ma xam kon ku ko waxal leneen da nga koo sosal moo tax ala kulli xaal loolu luñ ciy jàngee mooy ne doomu aadama léeg-léeg tamit genn ràññeeku gi ak yenn xéewali bu ko yàlla defale mu jigi coono lay doon ci moom ba tax na loolu léeg-léeg bañ di ko feeñal benn feeñal bi sax da ciy baax genn xéewal gi ak genn may gi bu ko yàlla mayee nit ba mu war koo mën a ràññatle ak ay maasam di xaw di nëbbatu ak di bañ di wane lépp da ciy baax tuuti ndax li tax mooy daf koy jural rek ñu ko soxore loolu la koy jural te ñooñu la soxore dara wóoru la ba xam di nga mucc ci seen i loraange moo xam seen loraangay làmmiñ wala seen loraangay bët wala seen loraangay loxo yi nga xam ne dañuy jóg di la fexeel ndax boobu moo ci gën a garaaw moo tax yenn ci ay aataar mu ñëw ñu ne wa ida xasadta fala tabxi bu fekkee dem nga ba mënuloo mucc ci am soxor goo xam ne nekk na ci sa xol jëm ci sa mbokk julit fexel ba bul ci bul ko jëf bu mu la yóbbu ci ngay def wala ngay wax na nga jéem a fexe nga téye ko yëg-yëg bi ci am ci sa xol rek doy na sëkk waaye boo ci toppaatee nag di wax wala ngay jëf boobaa yaa ngi lor sa bopp di lor sa mbokk julit ba tax nit ki tamit pour aar boppam ak sàmm boppam nay moytandiku loolu bu baax a baax ndax gis nga buxaari rahimahullah kenn ku nekk si ñun xëy na moo la gën waaye taxul woon mu mucc ci loraange yooyu gis nga lim ko jural ci ay jafe-jafe ak lim ko jural ci ay loraange leneen tamit mooy ne li yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne man yuridillahu bi xayran yusib minhu wala yusab minhu ku yàlla namm ci yow yu daf lay natt wala mu lu la natt boo xam ne yàlla lay teg ay natt yu jóge ci moom directement wala mu natt la natt boo xam ne imma ci loxo yi nit ñi la koy jaarale wala ci seen i làmmiñ ñoom lay jaar ñëw ci yow natt yooyu lekk léeg ci natt yi gën a jafe la bokk natt yi nga xam ne léeg ci nit ñi lay jaar ñëw ci yow ci natt yu gën a jafe la waaye loolu yëpp mandarga yi yiw la ci jàmm bu fekkee muñ na ko bu fekkee muñ na ko waaye gis nga alimaamul buxaari tamit ñaan bi ñaan loolu yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon na ko ci ne bu kenn ci yéen mbébét faatu bu kenn ci yéen mbébét dee ngir jafe-jafe boo xamante ni dal na ci kawam laa yatamanna yanna ahadukum almawta li durrin nazala bihi bu kenn ci yéen di mbébét faatu ngir jafe-jafe ak tartar woo xam ne tegu na ci kawam bu kenn ci yéen demee ba mënu koo ñàkk a def na wax ne yow yàlla subhanahu wa taala na nga ma faat bu fekkente ni ak faatu moo gën ci man waaye na ma bàyyi may dund li fekk dund moo gën ci man li fekk dund moo gën ci man nga gis ne ni mu ko waxee bokkul ci faatu gi daf ne bu fekkee faatu moo gën ci man ci dund gi mu ne li fekk dund moo gën ci man comme yaa ngi ci dund gi jógee goo ci mu ne li fekk moo gën ci man maanaa na continuer li fekk moo gën waaye faatu gi bu fekkente ni moo gën kon lu gën rek defal loolu bu nit ki demee bay ñaan alimaamul bukhari bi doon ba gis ne wéyam di def ci kaw suuf nekkatul ne yiw mi ngi ca ndax la mu waroon jëriñ nit ñi ci lam jàng nit ñi yàqate nañ ko ba kenn mënatu koo jëriñoo te mi ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne mën na ko indal ay fitna ak ay tartar mu ne allahuma inna al arda qad daqat alayya bima rahubat faqbidni ilayya faqbidni ilayka bi mu waxee loolu nee nañ ci weer woowu ma ko waxee ci la alimam al bukhari rahimahullah génn àdduna yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala yërëm دعنا وقنا لا أعلم شيئا يحتاج أو يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله والسنة دعنا وقت أي وقت من دعنا وقنا خوما لأن الله من نتك دينك وصخلة دينك يتوى لدرنا كتاب القرآن والسنة لدرنا منك القرآن والسنة دعنا وقنا نتوقما ngir di jàngale hadith ak di ko joxe lu dul ne fekk na ma mën a xàmmee hadith bu wér ak hadith bu wérul lu dul ne fekk na ma xool ci mboolem téere yi nga xam ne mooy téere yi xam-xam gëstu ca xool ca man dem naa ba dugg basra lu tolloog juróomi yoon wala lu lu lu ko jege mu ne bàyyiwuma benn xadis boo xamante ni bi wér na ca basra lu dul ne bind naa ko allahuma lu dul xadis boo xam ne xëy na gisuma ko wala yëguma ko mais dugg naa fa lu mat juróomi yoon wala lu ko jege amul xadis bu fa des boo xam ne wér na lu dul ne bind naa ko ci borom xam yi fa nekkoon loolu day wane ne topp goo xam ne toppoon na ko xadis ba du ci bàyyi dara lu ci nekk da ko daan dox ba mu jeex rahimahullah mu doon wax naan musuma nam ma wax ci benn wax boo xam ne waxi àdduna la lu gën ne balaa ma ko wax damay tàmbale ak sant yàlla subhanahu wa taala kañ ko soog a tàmbale di wax loolu tamit bokkoon na ci ay waxam lii mooy loo xamante ne tënk nañ ko ci lu borom xam yi nettali ci dundu al imaamul Buxaari mu nekk tënk bu jukki gu tënku bu ndaw ci lu yaatoo yaatoo yaatu loo xam ne wax nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo nettali dundam ci ay mbir yu bari yoo xam ne nettali nañ ko ci dundam rahimahullahu rahmatan wasia mu nekkoon géej goo xamante ni amul foo ko mën a yemale ci xam-xam ak da ngay gis ne ba mu juddoo ba ni mu génnee àdduna amul beneen yitte bu dul xam-xam dundam yépp ci xaris yonente bi alayhi salatu wasalam la ko def demoon na baag ci xam-xam foo xam ne benn borom xam nee na gis naa abu zura razi kilifa koo xam ci kilifa yi borom xam yi daan dellu si ñoom si jarx astaadil la bokk nee na gis naa ko mu toog ak Mouhamad ibn Ismail al Bukhari comme ni xale bu ndaw di toogee ci kanamu sëriñam ma gis mu toog ci kanamam di ko laaj ay xadis al Bukhari di ko ko leeralal demoon na ba àgg foofu ci xam-xam doon na wax naan du ma xeeb sam bopp ci kenn foo xam ne mës naa faa toog ma yëg sam bopp ne xeeb naa fa sam bopp lu dut ci Ali ibn Madini te nee na rubbama aghrabtu alayhi shay'an te nee na léeg-léeg sax ma am xadis boo xam dinaa ko ko génneel te du ko yor du ko xam li bukhari daan naw sëriñam boobu yëpp nga xam ne moo formé bukhari ci ñu gën a jeexital ci bukhari bokk na ci ali ibn al-madini kooku kilifa la woon kooku mooy imaamu al illa imaamu ilal nee na foofu laa daan xeebee sama bopp waaye nee na léeg-léeg sax ma ndax li mu mokkal bari woon na bari waaye boo xam léeg-léeg ma génn xadis boo xam ne dinaa ko ko nettali te moom fekk yoroo yoroo loolu alimaamul buxaari doon na ko wax ak liggéey bi nga xamante ne liggéey na ko ci téeréem bu màgg bi nga xam ne mooy sahih al jaamiu sahih nekk na mooy téere bi njëkk a taalif ci anam bi mu ko taalifee ndax téere la boo xamante ni xadis wér rek la ci def defu ci beneen xadis boo xamante ni wérul xëy na dugal na ci lenn ci ay wax yoo xamante ni ay wax yi ay saxaaba la ay taabiin wala ñu topp ci ñoom mais loolu bokkul ci téere bi ndax da koy def ci titre yi la koy def li ñu tuddee anawin al abwab am na ci ay xadis yoo xam ne daf koy rotal léeg-léeg ñàkk indi càllale gi mais loolu tamit yeneen jubluwaay la ci am yoo xam ne yaatu la al xaafid ibn xajar wax na ci wax yu bare bare bare mais daal ala kulli xaal mooy téere bi njëkk a taalif boo xam ne da cee charte ne téere bii du ci dugal benn xadis bu dul xadis bu wér te charte boobu ni ko alimam buxaari matalee ci téereem boobu amul kenn ku ko matalee comme moom noonu maanaam charte ne xadis bu wér rek laa ciy dugal ndax dëgër na ci dëgër goo xam ak tar na ci tar goo xam ne xadis fa dugal amul téere bu ko gën wér ci niveau bi nga xamante ni la ko tànne xëy na alimam malik taalif na laata moom muwatta Muwatta nekk tamit téere boo xam téere bu wér la téere bu màgg la ci téere yu islam yi alimaam Malik jiitu Buxaari gën koo kawe càllale ndax imaam Malik ñaari nit dafay nekk ci digganteem ak yonente bi alayhi salatu wasalam ñaari nit rek day jële ci Naafi mu jële ci Ibnu Omar mu jële ci yonente bi alayhi salatu wasalam ñaari nit waaye Malik rahimahullah li mu jublu woon ci téeréem bi mooy indi ay xadis waaye tamit indi fiq fiq lu ñu tuddee ay masail masail yi da ko daan jële ci ci saxaaba yi ci taabiina yi mu jaxase lépp Buxaari nag deful loolu moom daf ne téere boo xam ne ci xadis rek la koy taalif loolu moo tax mook malik bokkuñu xaj téere kon ndax malik comme daf ko jaxase hadith yi ak waxu ñële mooy fiqu borom xam-xam yi ak ay waxi boppam loolu moo tax kon mu génn tuuti méthode bi buxaari taalifee téeréem moo tax kon bu ñu waxee ki njëkk a taalif ci hadith kase yam ca hadith yi tamit mu taamu ca yu wér rek buxaari moo ci jiitu buxaari moo ci jiitu malik jiitu na ko ci lu xaw a mel noonu waaye dafa defee tënku ci hadith rek ndax dafa jël hadith ak leneen lu dul hadith Buxaari nag la muy dugal ci téeréem ci waxu keneen lu dul du bokk ci téere bi bokkul ci li nga xam ne mooy essentiel u téere bi daf koy dugal ci titres yi pour gën koo enrichir titres yi pour gën a leeral yenn masaayil yi du bokk ci téere bi ci boppam mooy bi gën a wér ci téere yi lislaam téere yi taalif téere yi nga xam nañ koo taalif mooy téere bi ci gën a wér bu boobaa doot du jar ñu naan ginnaaw alxuraan alxuraan kenn taalifu ko buñ ne mooy téere bi gën a wér ci téere boobu nañ koo taalif ci téere yi lislaam loolu lu wér la du jar boobaa nga naan ginnaaw alquran mais boo ne mooy téere bi gën a wér ci l'islam bu boobaa da nga naan ginnaaw alquran mais bu dee da nga ne mooy téere bi gën a wér ci téere yi nga xam dañ koo taalif ndax alquran kenn taalifu ko bu boobaa loolu lu wér la mooy rahimahullah mu téere bu màgg boo xam ne dayoo bi mu am ci l'islam xëy na moom ci boppam ku nekk suñun xam na ko insha allahu taala wax nañ tamit ne am na yeneen téere yoo xamante ni def na ko xëy na bi nga xam ne moom la def moom moo ci bi ci gën a siiw mais kulli xaal ku xool ci bi ak téere bi ni mu ko taalifee di nga xam niveau bi nga xam ne Bukhari àggoon na fa ci xam-xam am na précision bu mu am ci téere bi ak sew sew bu mu ci def boo xamante ne dafa àgg foo xam ne am na sax ñu charxe téere bi charxe ko ba téere bi jeex te yenn yi comprendre ñu ba léegi na ko lu tax Bukhari defee ko noonu comprendre ñu dañ ci romb mais duñ xam bukhari lu tax xadis bi mu indi ko fii wala lu tax mu indee ko nii lu tax mu tiitire fii lii ba pare jël hadith bi dugal ko fii lu tax mu def ko duñ mën a comprendre exactement ban sew sew la ci bukhari nam am na ci yu bëri Ibn Hajar moo ñëw ala Asqalaani ci Fathul Baari sonn ci lool def ci téere bi ay atti atti atti atti at képp ku sharxa téere bi mu xool li nga sharx jàng ko toppat ko di ko xool ci téere yi di ko xool ba lu ci bëri moo ko génne lenn li moom ci boppam bu ko génnee bu paree def naan yàlla na yàlla jéggal buxaari lii dafay wane ne géej la woon ci xam-xam parce que sew-sew bi pour nit gis ko lu jafe la léeg-léeg day indi xadis boo xam ne doo xam xadis bi lu tax parce que sujet bi xadis bi di wax ak buntu bi mu ko indi jotewuñu dara mais day am benn sew-sew bu nekk ci xadis boo xam ne ci la bëgg attirer sa attention mu indi ko ci boo nekkul fóore ci xam-xamu xadis doo xam lu tax kon loolu day wane géeju gi nga xam ne géeju woon na ko ci xam-xam ak tamit ni muy tiitiree bunt yi nim ci expliquer yenn masail yi yenn prise de position yi ak ni muy expliqué yenn masail yi fiq yi ba dafa dem ba borom xam ne dañ ne boo bëggee jàng fiqu Bukhari day lire ay titres titre yi muy titré ci téeram bi di as sahih loolu rek mën nga cee jàngee fiqam moo tax ñaan fiqul Bukhari fi tarajimihi fiqul Bukhari fi tarajimihi yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala jéggal yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala jëriñ ci dund ñu mel ne al imaamul Bukhari ñu jéem a jàngat seen dund di xool ci niñ meloon ñu koy jëm ndax dañ naan na ngeen di jéem di roy même bu ngeen melul ne ñoom di jéem a mel nañ sax ñi baax ñi lu baax la di jéem a mel na ñoom lu baax la loolu xëy na dinañ gën a yokkaat ca warte ci njàng xam-xam ak sacrifice yi mu laaj ak góorgóorlu waat ci ak timit raxas sa bakkan ak yar ko njariñ yi nga xam ne mën na ko amal nit ci ak barke bi muy def ci dundu nit alimam Buxaari li mu dund ba taxu koo bëri 62 ans la mais gis nga li fi liggéey ak li mu fi li mu fi réalisé lépp ci ko yàlla defal ba képp ku dégg ñu ne Buxaari sax nga rahimahullah loolu barke moo koy def ci ci dund doomu aadama yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala jëriñ ci li nga xamante ni jot nañ ko fee wax wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sal allahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ayakum jazakallah xayr kon dañ ci yokkaat ñaan rek yàlla yàlla defal ci def toog allahuma ndax gis dëgg nañ ci loo xamante ni danañu ñaax lool danañu xemmel la bëgg loolu lii di xam-xam ak sàkk ko imaamul Buxaari rahimahullah am na gënal bu rëy waaye dafa am lu mu def loo xamante ni ci moom la bàyyi ko effort yu bari yu mu def ak ñaan bu ko wajuram doon ñaanal ak moom tam ñaan bu mu doon ñaanal boppam ba tax mu mën a am yàlla subhanahu wa taala ko li mu ko may mu fonk ko itam waaye itam am ay natt yoo xam ne fekk na ko ci gis ngeen ni mu def ak moom mooy nuñ ko kon ki nga xam dafa soobu yoonu xam xam-xam itam il faut que mu def effort il faut que def sacrifice ci li mu laaj moo xam ci waxtoom la moo xam ci alalam la moo xam lu muy dépense bu nekk la pour mën a am xam-xam boobu nga xamante ne moo koy nekkal lumière moo koy nekka leer ci dund bi ñu dund fii kon li tax ñu lay taayee waxtaan bi ci séminaire bi mooy ngir ñu ñoo ñaax bu ñu jàngee dundam mu am loo xamante dina ko def ci ñun sawar loolu bëgg loolu itam ji yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.